سيدنا محمد فلنين مجل سيدنا déglul ma wax fi nag ay jikkoom yoo xam ni tuut la ba tey ci ay soloom yëccëm moo ngi wax fa yàlla قد كان نجول مك صلى الله لكم من العلي كل سلاكين kersa ki tegin la lambawoon te dëgër te te jàmbaar te lamboo Muhammad da daa toroxlu di gaar dalam te dig du ko jam di jar malaan ya di solin daax fa ya laaw di rati gatam ya dak sardi yey fege bay di yey naagam di fek baxlaam ya laaw di war ca baxlaam ya ak naagam ya daana dawal di war ca baab ya di ànd ak nit ña laaw sayyiduna Muhammad Isa mu sol mbaxanaam Isa mu kaalaw bis Isa mu jartu def boppum neen fa yàllaaw Mawlana Muhammad وسلم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 صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yonent bi Yàlla bi nee na azul tooy zulumatum أيضا ضمن يوم القيامة بسط خوائب رواه سيهاني سيهاني وقصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yonente bi Yàlla bi nee na talabul ilmi sàkku xam-xam faridatun faratala ala kulli muslimin si bépp jullit rawaawul buxaariyu buxaariyu moo ko solo xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi yàlla bi nee na laa salaata bi xayri taxuuli ku laabut amul julli hadiisun sariifun hadiis bu tedd la bisimila gan yi képp koo xam ne dikk fi ak daayira bu mën a doon waa muy ñu lay wax bisimila di nuyu ñëpp nag bayiwuñu pël bayiwuñu naar bayiwuñu jan képp ku fi dikk rek te gàmmu muy tax la fee dikk ñu ngi lay ñaan di euh, di la ñaanal pour yàlla may la nga del si waat fi ay at at di sëriñ ci suñ sëriñ si nga xam ne yàlla indi na leen fii ndax kat lu mel nii boo dikkee ah lu toll ni sëtëb maam Abdul Aziz lu toll ne waa këriñ sëriñ Touba lu toll ne Chérif sëy baay ni nekk fi normalement muy defe naa tey sant yàlla rek lan war a def te xam ne sa kanam waaye dootu sa gannaaw ndax lii dafa neex ndax bu seetee sa suñuy maam yi ñoo ko doon def muy wax gàmmu muy booba Malick Sayel moo jóge mbuula war a fas dikk di ko fi def yàlla dindi ko tey ban indi sërif sii ñu di ko jël ay rajo di ko jël ay télévision sant yàlla moo la war bon ñun ñëpp ñu ngi bokk di wax alhamdulilahi rabbil alamin ah di nuyu tim waa gouvernement bi képp koo xamee ne ndaw nga ñu yónni la fi ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal it nga dikk si jàmm dellu si jàmm wàcc fi jàmm fekk fa jàmm ndax nit kat amul lu may benn ab bés bés bii nag bésub lislaam la comme nag bésub lislaam la ñëpp teew fi chérif ñu ngi leen ñaan ngeen ñaanal waa muy progrès yokk yokk la ni ñaan na li ne am moom bu neexee yàlla am nañ ko waaye ngeen gën see dolli son loxo ndax muy dafa jafe woon dikkool muy nekkoon na ay problème ndax yoon wi neexutoon ñuy ñaan di ñaan ba yàlla di teew yoon ñu ne alhamdulilah daaw heure bii xam ngeen ne làmp amu fi woon tey yàlla indiwaan na làmp loolu lépp jar naa sant yàlla ñu gën di ñaanaat nag am leneen loo xam ne ñu ngi koy dénk waa gouvernement bi ndax kat muy léegi tuutatut ndax ko xool lii ak li jë si gannaaw ak ñi nga xam ne ñoo nga toog bëgg a dikk mais mënunoo dikk vraiment ngeen xam ne doo tuutatut ñuy ñaan ngeen jàppale nu si case de santé ndax nit lu muy def te amul wér-gi-yaram defe naa dara du fa nekk tam mbooloo fu ni tase ah wér-gi-yaram am ñu fa feebar te amuñu fu ñu fajoo métti na ndax suñ fi euh, gën a jege mooy kàmb 17 kilomètres nga war fee jóg di dem loolu métti na te lu warukaay yi yombul bon ñu ngi ñaan ngeen defal ñu fii poste de santé ak leneen ak leneen maanaam sax li ma war a wax lépp bëri na mais dama koy tënku ne de di wax bisimilah fii si biir muy di leen xam ne lan wax woon démb rek la ñuy waxa jàppale nu ñu gën a jëm kanam ngeen jàppale jigéen ci jàppale gone yi loolu rek nañ si sànni sëriñ si ngeen dolli seen ñaan yàlla gën noo yóbbu sa kanam a kanam jërë ngeen jëf mal ali wa ashab bima darra yaa ilaahi jiit waaye wàccuwaay yëpp yëpp ñu ngi nuyu ba tey suñu mbokk Serigne Cheikh Mbacke nee ñu ngi nuyu ba tey suñu mbokk di Serigne Cheikh Mbacke di ko wàcc wàccuwaay moom tamit di ko wàcci wàccuwaayam moom itam di nuyu bi fi nekk di alxaaji imaamu raati bi fi nekk di alxaaji Malick Kane di nuyu ba tey ki nga xamante ni mooy sunu sous préfet di Seydi Youssoufa Guèye. di nuyu ki nga xam ne mooy sunu préfet di Seydi Youssoufa Guèye. le maire maire Daara El nee di nuyu suñu maire di maire Daara El Hadj Mawa Ndiaye. ak sunu maire maire Gam di Biram Ba. nee suñu maire maire Kamba muy Biram Ba. di nuyu suñu maire ba tey Aboubacry Sow di maire Boulal. nee di nuyu suñu maire Aboubacry Sow di maire Boulal. di nuyu ki nga xamante ne ñëpp ñu ngi ci ginnaawam. seen ginnaaw. parce que da naan ni baaraam. moom daal da naan ni baaraam. ni tànk ni tànk ni loxo. ni loxo waaye soo nee jëmm. waaye soo nee jëmm. lépp dugg na lépp dugg na. muy ki nga xam te moo fi moo suñu ministre. mooy ki nga xam ni moo fi wuutu suñu ministre. di siidal saw tabaarakallah di siidal saw tabaarakallah suñ Cheikh Omar ne ñu ngi wàcc sa wàccuwaay fa tabaarakallah kontaan seen teewaay lool ne kontaan seen teewaay lool gën na taaral bërëb bi di nuyu ba tey di nuyu ba tey alxaaji Mor Aale Ndiaye alxaaji Mor Aale Ndiaye di ko wàcc tamit wàccuwaayam di ko wàcc tamit wàccuwaayam kenn mënta tudd ñëpp. moom daal kenn mënta tudd ñëpp. waaye nag yàlla ku tax yàlla nga tax yàlla nga yàlla ku tax yàlla ñëw fi gis na la tabax. moom daal barab bii képp ko xam ni yàlla la fi indi yàlla gisal na la woon. ndaxte yàlla moo leen invité. ndax yàlla moo leen invité. xaaj badara bi invité leen. xaaj badara bi invité wu leen. ndax yàlla daf ni istajibu lillahi wal rasuli yàlla ne istajibu lillahi wal rasuli isa daakum li maa yuxyikum isa daakum li maa yuxyikum daan ni man seen boroom daan ni man seen boroom ak sama sonent di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sama yonent muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fépp fu ngeen déggee ñu woote fa képp kuy jullit na nga dem wuy ji ko. moom daal fépp fu ngeen déggee ñu woote ko képp kuy jullit na dem. yaat nag woote gën tërëy màggal yonent bi sallallahu alayhi wa woote daal gën tërëy màggal guddi juddu ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla nag nee nag ñëwuy ji nag. yàlla nee nag ñëwuy ji. ah dinañ am lu ma leen dencal spécial yoo xam ne du bokk du bokk ak ji jiwul. ñoom daal dañu neexal boo xam si ñoom rek ñoo ko yeyoo dina wuute ne wuy juul kon yàlla nañ ko muurloo tabaarakallah kon yàlla nañ ko muurloo fa tabaarakallah di nuyu tamit cinq soxna yu tedd yi tabaarakallah nee ni ñu nuyu soxna yu tedd yi fa tabaarakallah di leen wàcce seen wàccuwaay ñoom tamit di yu wàcce ñoom seen wàccuwaay di nuyu dëkk dëkkaan yi fi nekk yépp di yu dëkk dëkkaan yi fi nekk yëpp daayira yi fi nekk yëpp ñu leen di nuyu di leen ziare ñi ngi leen nuyu di leen ziyaara ñi ñi fiy ndey ñi fiy baay ñi fiy càmmiñ ñi fiy càmmiñ ñi fiy rak ñi fiy rak ci nekk daal nee ku ci nekk daal jël nañ suñu loxo jël xol muy suñu loxo nañu suñu xol def ko muy suñu loxo di ko saafanteeg yow di ko saafante ak yow jazakumullahu anna xeeran jazakumullahu anna xeeran di beral nuyoo spécial nag nee di beral nuyoo spécial nag bëggul sax ku ko wax moom bëggul sax ku ko wax ndaxte ñoom taxawaayam ndax moom taxawaayam la muy dund la muy dund moo di rek moo di rek la sunu sang ba waxoon la sunu sang ba sallallahu alayhi wa waxoon moo di laa nuridu minkum mu ni laa nuridu minkum jazaan jazaan wala shukura wala shukura yàlla tax may def yàlla tax may def kon soxla ma ci cant ak ngërëm kon soxla ma ci cant ak ngërëm waa xanaa soxla naa nag ku ma defal ñaan waaw soxla naa nag defal ñaan ndaxte ñaan mooy gànnaayu jullit ndax ñaan mooy gànnaayu jullit te ñun ñëpp ñu war koo ñaanal ñun ñëpp nag ñu war koo ñaanal neetu ku am yéene bu rëy bi waaye ku am nag yéene bu rëy bi am xolu def ci sang bi sallallahu alayhi wa am xolu def ci sang bi am xolu def ci sa dëkku cosaan def ci sa dëkku cosaan ak ña ko bokkal ak ña ko bokkal kooku faaw ñun la jërëjëf waaye kooku nag faaw ñun la jërëjëf muy suñu mbokk mu tedd mi suñu wet di xarit di xarit di soppe di soppe di wéttal di wéttal miinu di ko miinu di ko miine di ko miine dafa am lu sang bi wax sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu sang bi wax sallallahu alayhi wa sallam mu ni aqrabukum mu ni aqrabukum minni minni majlisan majlisan yawma alqiyamati yawma alqiyamati axaasinukum axaasinukum axlaaqa axlaaqa mu mel dañ ni ko ñooñu axaasun axlaaq moo di ñan. nee na ko axaasu axlaaq. ñooy ñooy kan. mu ni almuwatiuuna. mu ni almuwatiuuna. aknaafan. aknaafan. allazina. allazina. yalifuuna. yalifuuna. wa yulafuuna. wa yulafuuna. dañuy ëllëg yéen ñi may gën a jeges. dañuy ëllëg yéen ñi may gën a jeges. ca Firdaws. ci li ci illiyiina moo di boroom jikko yu rafet yi moo di borom jikko yu rafet yi waxul borom julli yu bëri yi de waxul borom julli yu bëri yi de waaye borom jikko yu rafet yi waaye borom mu mel dañ ni ko lan mooy jikko ju rafet mu mel ni dañ ni ko lan mooy jikko ju rafet la sang bi mën a wax bëri na la sang bi mën a wax waaye daf ñu wax ñaari mbir waaye daf ñu wax nag ñaari mbir al mu ak naafan al mu watti una ak naafan mu ni bokk na jikko ji rafet de mu ni bokk na jikko ji rafet lu lu sa cër rëy rëy nga wàcc say mbagg nga wàcc say mbagg ba bëgg ba a ànd ak say mbokk ba mën a ànd ak say mbokk alladhina alladhina yalifuuna yalifuuna wa yulafuuna nga miinu nga miine ku la gis ku la ñeme la mooy xaaj badara bi tabaaraka koo gis bëñam ngay njëkk a gis koo ko seen bëgg nit yaatu du bërëb bi du bërëb bi moo tax ma di ko wax waaye dem naa këram ay yoon yoon dem waaye xaritu démbam waaye xaritu démbam septembre ba muy am sept ans ba muy nekk primaire ba dugg université ak ci tayam soo fa demee doo leen fa xam ñëpp benn lañu loolu mooy wàcc mbagg loolu mooy wàcc mbagg xaaj Badara Serigne Maodo ngi leen nuyu baax a baax xaaj Badara Cheikh Hadj Malick Maodo mi ngi baax mi lay béggee tabaarakallah mi ngi nee na li ngeen di def ci muy ne lii ngeen def ci muy ñëpp nga ko defal ñëpp nga ko defal ndaxte muy cosaan la sunu maam yu tedd yi ku ci nekk. sunu maam yu tedd yi ku ci nekk. am nga fi càllale gu jawaay fii. fi càllale yal na yàlla fay la yiw. yal na yàlla fay la yiw. jàppale ñëpp. ak benn loxo du tàccu. benn loxo moom du tàccu. su doon moom kese kese. kon mbir mi du sottee nii. ndaxte xaaj Badara ñëwul di def ay ay tip. déet ay tip. ñu ko jàppale. waaye dafa am ñu te moo di te moo di sana shudd. sana shudd. bi axiika. bi axiika. te yonent yàlla Haarun. yàlla Haarun. ak Moussa. ak yàlla ku ne. ku dul yàlla ku ne. soxla nga ku la dimbale. soxla ku la jàppale. ba ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam. ba suñ nee Muhammadu Rasulullah. suñ Muhammadu Rasulullah. lépp moom la de. waaye dañuy wallazina maahu. waaye dañuy wallazina maahu. ña fa. ku ci ne am loo taxaw. ku ci kon lii kon lii ngay def. ak mbokk mu yi nga bokkal ñëpp. xarit yi. xarit yi soppe yi ñoom ñëpp ñoom ñëpp sëriñ Maodo nee na li leen di sant mi ngi leen di feddali kóllëre gi di feddali kóllëre gi xëy na jëmmam moo ñëwul xëy na jëmmam moo ñëwul waaye xolam ak ruuxam waaye ngi fii ci dëkk bi tabaarakalla mi ngi fii ci fekk at yu bëree bëri yàlla nañ ci fekk nag fekk leen fi at yu bëree bëri ñu ñëw ak suñu baay ak suñu nijaay oustaz Mouhamad Lamine si bii toog suñu ndeyjoor. oustaz Mouhamad alxaaji Mouhamad Lamine si bii toog suñu wet. ñëw ba tey ànd ak suñu baay. ñëw it ànd ak suñu baay. alxaaji Bachirou Ndiaye bii toog. alxaaji ak suñu mbokk ba tey. ànd ak alxaaji Mbër Faas bii di ñu jottali. amiin alxaaji ki ñu teeru si mooy Serigne Habib Ndiaye. di sëñ Habib Ndiaye. ak oustaz Omar Seck mu baax mu tëdd. ak yal na leen yàlla yal na yàlla yàlla fay yiw. mbokk yi. nee mbokk yi. gi du gudd. kaddu gi ñi fi war a jël kaddu ñu ngi ci ginnaaw. nee ñu ci ginnaaw. waaye rek dafa am lu sëñ bi waxoon suñu weer ñu fàttali ko. waaye sëñ bi daal am na lu mu yóbbante ni bu na accès nañ ko fàttalante. te moo di rek. moo di rek. yeeslaat suñu xol bu baax a baax. yeesalaat suñu xol bu baax a baax. tamit suñu yéene bu baax a baax. yeesalaat tamit suñu yéene bu baax a baax. yeesal xol. yeesal xol. moo di sellal ko. moo di sellal ko. yeesal xol. yeesal xol. moo di fexe ba xol bi. mooy fexe ba xol bi. dara du ci nekk. dara du ci nekk. lu dul yàlla. lu dul yàlla. fexe ba xol bi. fexe ba xol bi. li nga bëggal sa bopp. li nga bëggal sa bopp. nga bëggal ko ñépp loo yéene sa bopp. loo yéene sa mbokk jullit ñëpp. mu ni suñ dee wax jaamu yàlla. mu ni dee wax jaamu yàlla. këpp këppal. xiif. ak mar. taxul ñuy wax. taxul ñuy xiif ak mar. am nañu ko mën. ko mën te duñu ay jullit. duñu këpp këppal. këpp sëg ak sigi. jug sigi ak sëg ak sigi. li muy am solo. li am na loon su ci àndul. am na loolu loo xam bu ci àndul. du mën a sotti te moo di xol bu sell. parce que suñ nee julli. nee suñ nee julli. dañ inna salaata. dañ inna salaata. tanha. tanha anil faxshaay. wal munkari. wal dañ ni julli ku koy def. lépp luy safaan. sori nga ko. waaw tey jii. waaw tey ngay dugg ci jàkka. génn. doo gis say dàll. doo gis waaw ka dàll yee julli la wala. julli nga jege sa nga sa mbokk ngay sa mbokk ba ci biir jàkka ji ba ci wala sax ci armeel yi mbaa sax ci armeel yi wala ci ziyaar yi mbaa ci gàmm yi nga làmb sa poos nga làmb sa poos gisoo kooku jullit la wala kooku jullit la waaw kon ana lan ko julli la ko julli moom kon mi mbir mi kon mbir mi mbir mi moo di xol bu sell moo di xol bu laab ñu ni fa ida lam yasduqu qalbul muslimi fi ibadatihi dañuy xolu xolu jullit su dëgguwul benn dëggu bi benn dëggu bi digganteem ak boroomam digganteem ak boroomam du mën a sellal mukk lu muy def du mën a sellal mukk lu toppam toppam du mën a sellal jaamu yàllam jaamu lu ko cay dal yàlla musal yal nañ ci yàlla musal dafay def ba dafay yaakaar def na lu baax. dafay yaakaar def na lu baax. nekk lekk dafay nekk ab bal boo xamante ni. day nekk nag bal boo xamante ni. yàlla da koy delloowaat yàlla da koy delloowaat. moo tax moo tax alquran di wax ni. moo tax alquran di wax ni. wa maa umiru. wa maa umiru. illaa. illaa li yaabuda allaha. li yaabuda allaha. lu tax. lu tax muxlisiina. muxlisiina. lahu diina. lahu diina. jaamu yàlla gi. dañ ko war di sellal. set goo xamante ni. la koy waral. moo di sa xol bi. mooy sa defal ni. sunu borom. sunu jëmm ji. jëmm muy. loxo yeeg cër yeeg yëpp yàlla yàlla xoolu ci fenn. xol la xool. xol la yaatu. asamaan li muy yaatu. suuf li muy yaatu. suuf li muy yaatu. adduna yaatu yàlla dafa ni. ñaari bërëb laa ci am. ñaari bërëb laa ci am. moo di xoolu jullit. mooy ak jàkk. ak jàkk. moo tax sang bi sallallahu alayhi wa daan wax naan. moo inna allaha laa yanzuru ila ajsaamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila quluubikum nee na yàlla kat xoolul jëmm yi xoolul melo yi kii dafa xees ak kii américain laaj kii chinois laaj kii olof laaj kii njaago laaj kii pël la yàlla xool loolu yàlla fu mu soxla di ko xool moo di xol xol boobu nag xol boobu ko yàlla di jox bala koy yàlla di jox dafa set wicc dafa set wicc <coughs> fexe yow doomu aadama bi su demee ba dellu mënta ñàkk su setul wicc tamit su na taas taas taasee néew moo tax mu ni moo tax mu ni qad aflaxa qad aflaxa man man zakkaaha wa qad xaaba man man dassaaha mu ni texe na. mu ni texe na. géppuk texe. ñu ne ko yàlla ku texe. ñu ne ko yàlla ku mu ni mooy kaselal xolam. mu ni kaselal xolam. xol bu laab. xol bu laab. amul kiñaan. amul kiñaan. amul amul naafiq. amul wax ci kaw wax ci suuf. amul wax ci kaw wax xeebul kenn. ku mu gis sax. jàpp na ni. yaa ko gën. nangoo. sonn ngir jaamu yàlla yi. rëyul. gisul boppam. deful dara. ngir ngistal. loolu mooy. loolu mooy xalbu xalbu nag am ñaar. xalbu nag am ñaar. am xalbu salim. am ak xalbul bu ak xalbu munib. xalbu salim. moo di xol bi nga xamante ni. jullit bi. moom lay ànd ak. moom képp kuy doomu aadama. képp kuy waxuma képp kuy jullit de. xol bu sell boo xamante ni. dañ koy ànd ak. dañ képp kuy. doomu aadama. doomu aadama ndaxte kat. kulluhum mazaahirullahi yàlla moo leen bind. yàllaa yemale ñëpp. yàllaa yemale ñëpp. waaye koo ci gis rek. waaye koo ci gis rek. jàppe ko. jàppe ko comme sa bopp. comme sa bopp xoolal suñu borom li mu wax foofu. xoolal suñu borom li mu wax foofu. dañu inna allaha. dañu inna allaha. binnaasi. binnaasi. waxul bil muminina de. waxul bil muminina. waxul bil muslimina. waxul bil muslimina. binnaasi. binnaasi. la raufun. la raufun. rahim. rahim. yàlla nee na. yàlla nee na. ate beeg. ki ma gëmul ak kii jaamu xërëm ak kay def leneen nag leneen yow yàlla yow yàlla santu la pour nga régler ko wala nga di ko dugal fenn régleel sa bopp yow seetal sa bopp yow foo jëm ak moom moo tax ba waykat bi naan ëlu mutasawifuun yi mu ne yow doomu aadama fekk demagoo ba ñu dugal la ci sa bàmmeel mënoo dogu mukk ni yow yow. ni yow jullit piir fonkal ñëpp tabaaraka moo tax foofu. moo tax foofu. loolu la loolu la El Hadj Abdou radiyallaahu taala anhu. loolu la maam Abdou radiyallaahu taala anhu wax. sang bi ni ala ala inna fil jasadi. sang bi ni ala inna fil jasadi. mudghatan. mudghatan. iza saluhat. iza saluhat. saluhal jasadu kullu. saluhal jasadu kullu. wa iza fasadat. wa iza fasadat. fasadat. fasadat. al jasadu. al jasadu. kullaha. kullaha. ala. ala. wa hiya al qalbu. wa hiya al qalbu. sang bi nee na. sang xol mooy li nga xamante ni. su nangoo rek. cër nangu. cër doomu aadama. bëgg a def dara. bëgg di ci sikki sàkka. xol baa nanguwul. waaye su xol su xol nangoo. su cër nangu. cër moo tax nañ sellal xol yi baax a baax. moo tax Hadj Malick Sy Mor ñu bokk sellal xol yi ñun ñëpp. bëggante. bëggante soppante soppante taxawante koo tane koo ko tane la ko tane na ko ko dimbali ba ci nit kuy am ba ci nit kuy am bëgg a root nga jàppal ko siwo ba nga jàppal ko siwo ba nit koo xamante ni liñ naan rafet rafet njot ba mu ëpp baaxul sa mbokk bu la seet si minuit sa mbokk bu la seet si dama la seet si woon dong bay dem te yàlla may la teraanga te ñaawal njortu tuuti ñaawal yooyu kat heure bi mu jug nii heure seet si naa ko jox dara lu mu yóbbaale ko xëy na ñëw na waaye kersa waaye tax na mën laa laaj dara la yasaluuna annaasa ilxaafa yaxsabuhum aljahilu agniyaa min ataafufi la nga ko mën a dimbalee nga dimbale ko ko moo tax nee moo tax sunu maam ju tedd ja suñu maam ju tedd ja xoola dégg-dégg bu yaatu boobu xoola dégg-dégg bu yaatu boobu suñu maam Fallu Mbàkke suñu maam Fallu Mbàkke yal na yokk leeram yal dañ koo mës a romb ak benn cercueil ak benn ñu tukk fleurs yi bëri ci lool fleurs yi bëri ci lool mu ni ah mu ni néew bi ah, ki rafet na lool ah, bi de rafet na loolu waaye

bashiran wa naziran. ba na bashiru. bashiru wala tunafiru. sang bi neena na. dee leen dalal xelu jaam yi. waaye bu leen foñ la bu leen tax ñu foñ ma. ñu foñ. yàlla. waaye yàlla su la jàppee. waaye dóor. malaaka bi nangam. def la nangam. xëcc la juróom ñaari suuf. dóor la mbolde. seen biir métti na. yàlla sax ba muy wax alquran ba mu ne bismillahi lan la ci teg arrahmaani rahiim nga dugg ci alhamdu demaat tuuti malik yawmi diin arrahmaani rahiim répété na ko ci diggante fatiha pour wan rek mooy borom yërmande yow mi nga jàpp na la nga nekk ndaw wala leneen téye la bala nga war def defoo ko xëy na sax dem nga ba gedd sa bopp yàlla nee na yow moomu laa soxla soo ñëwee rek ma fat la mi ngi mel ni parental wala xale boo xamante ni ñu jéggal ma ci misaal bi génn ci mbedd mi far am lu ko mën ba mu yàq tubayam ko ko jege da nga yóbbu ko ci yaayam waaye waaye su ñëwee ci yaayam dina ko jël dugal ko defar ko suturaal ko solal ko yére ba mu mën a génnaat yërmande googu ndey di ko am ci njabootam lu ko raw la yàlla am ci jaam boo xamante ni seytaane wala bakkan mën na la moo tax suñu borom ni inna allaha sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna allaha yaqbalu tawbatal abdi maa lam yu xarxir xoolal loolu yàlla nee na yonent bee ko wax mu ne yàlla nee na du ma dañ di nangu sama tuubu jaam di ko nangul muy def erreur di jéggalu ba di ko jéggal fekk demul ba toll ci xar-xar la su fekk yeggul foofu rek. lu mbiram rëy rëy. su ma jéggaloo. ma jéggaloo tuub ma jéggaloo. kon yal na yàlla boole jéggal. tabaarakallah waaye yal na yàlla boole jéggal nabi. te te te te sang bi. nee maamu sang bi. muy sang bi sallallahu alayhi wa sallam. muy sang bi yërmande adduna la law lam yalux fi fadaa'il kawni tal'atuhu tabqa albariyatu fi zalmaa'i yàlla jërëjëf moo tax xalbul salim foofu. moo tax xalbul salim foofu. fa la ñuy delluwaat. fa la ñuy delluwaat. moo di rek suñu borom. moo di rek suñu borom. nee na yow ma laa yan faxu. nee na yow ma laa yan faxu. maalun. maalun wala banuun. wala banuun. illa man ata allah. illa man ata allah. bi xalbin salim. nee na ëllëg. nee na ëllëg. sëriñ bi. sëriñ bi. sama nijaay. sama nijaay. sama papa. sama xarit. sama doom. sëriñ bi lam daan jaamu yàlla ndax yaa ngi koy jaamu yàlla ndax sa borom kër la muy góorgóorlu yaa ngi cay góorgóorlu ndax yow soxna si tamit la ngay góorgóorlu ndax sa boroom kër ma ngi góor góorgóorlu yow waajur wi la ngay góorgóorlu ndax sa doom ma ngi cay góorgóorlu yow doom ji la way la way la waajur wa di góorgóorlu ndax yow yaa ngi ciy góorgóorlu yàlla nee na foofa noonu su fekkee ni ñëw nga du baay du am am du alal du yàlla di réglé li muy xool daal moo di xol bu sell su xol ba sellee rek su xol ba sell googu nag moo di ànd ak ñëpp doomu aadama te moo di jikko yi ñu waxoon su ko defee rek texe ba faw xalbul munib nag beneen martaba la moo di góor yàlla yi nga xamante ni dund nañu àdduna ba fase àdduna seen xol yëpp suba ngoon guddeeg bëccëg ñu ko jox suñu borom udxuluha bi zalika yawmul xuluudi nee na yow mi nga xamante ni nag. nee nga ci martabatu xal bu xal bu salim. nga ci martabatu xal bu ba yegg ci martabatu al qalbul munib. ba yàlla du la dugal àjjana. yàlla sa cër. raw na àjjana fa ngay dugg moo di këru yàlla moo di fan wa ridwaanun min allaahi akbar yàlla na yàlla defal loolu ñu jàppante bu baax a baax. ñu bokk jàppante sellal yéene yi. gën a bàyyi xel suñu borom tabaarakallah gën a borom tabaaraka ba ci looy def ci lu baax. ba ci ci lu sa soxna. sa njaboot. gan gi. ki ci mbedd mi. ki ci mbedd mi na kàddu ya rafet. waaye defal nit dara. waaye ni ah. daan ah. sa booxul ma. sa def yàqu na. jëw nit ki. xanaa du diw maa ko defal nangam maa ko yar barki dem moo njaay su dul woon man du am lii yàlla nee na gisatuma ko yow moomu di wax barki dem ana kan def adak ana ñi la yàlla foofu ni moo tax wa maxfiratun xayrun min sadaqatin yatbauha aza wallaahu ganiyun xalim wallaahu ganiyun xalim neen may nit ki ndox mu sedd yàlla nit ki ñëw soxla ci yow amoo loo ko jox nga wax ko wax ju nooy sedd xelam mu sedd xelam bañ koo jëw bañ moo ma gënal nga jox ko ba pare mu war la ginnaaw nga di safar wala tubtilu wala tubtilu sadaqaatikum bil manni wal aza yàlla nee na yàlla nee na la defal doomu aadama la ngay defal doomu aadama bu ko def ba pare di ko di di di ko yéem di ko sulu woon ak man naan soo ko defee rek yàlla nee na gisatuma ku ñu mën a jàppale nañ ko jàppale sunu benn suñu benn wéyjur dafa ñëw ci alaaji Abdoulaye Taala. dafa ñëw ci maam Abdul Aziz radiyallaahu taala. moo ko nettali nettaliwaat ko. moo ko nettali nettaliwaat ko. ñu ni ko si góor gi dafa am koo xamante daf ko jox xaalis fu mu toll. ñu ni ko góor gi dafa am koo xam daal da ko jox xaalis fu mu toll. te kooku dañ ni dafay dafay jëfandikoo ñollu. maanaam ka muy jox xaalis ba. ñooñu day jëfandikoo ñollu. te góor gi fu mu ñëwee mu jox ko xaalis. te góor gi foo ñu ñëwee ñu xaalis bi mu ñëwee. ci góor gi. bi Abdul Aziz. Alxaaji Abdul Aziz. nuyoon teeg moom. nuyoon teeg moom. ab mu ni ko. mu ni ko. papa de. dañ ñu diw. saa su ne da nga ko jox xaalis. saa su ne da nga ko jox xanaa xamoon ne li jox. xanaa koy naane. daf koy Abdul ni teg. Alxaaji ni ko diw. daal muy doomam jooju. muy doomam jooju. mu ni ko man gisuma. gisuma kuy naan sàngara man ku ma tàllal ba jox la loxo jàpp naa ni yàlla laa jox la muy jëfandikoo nag digganteem ak boroomam xadis bu mel noonu Buxaari nettali nañu ko sang bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama dinay def yiw du bëgg sax nit yëg ko mu dafa benn góor ci góor ñi. da daan jug ba guddi. da daan yow suñu borom sarax bii de. ni ngi koy def. maa ngi suñu borom. di ma. ñaanu ma kenn yëg ko. kenn mu génne sarax. kam ko jox nag. xëy na loolu. xëy na yàlla na ma yàlla jéggal. waaye xadis bi noonu la ko indee. waaye jox sarax bi. ka jox sarax bi. sàcc la. ab sàcc la. mu xëy sàcc bi di wër naan diw de moo jox lii démb te mu daf doon nëbbu par feeñ ci ëllëg sa mu amaat yéene ni bii de kama koy jox fa séeréew ma kenn yëg ko ba mu ba mu xëyee ka mu jox sarax sa teraanga ja muy koo xamante ni jigéen juy mooy yàlla la mbir ma siiw mu ni man de daf maa jaaxal diw de mooy fi ñëw démb jox ma nangam. mbir ma siiwati. sang bi salaa sallam. nee na ca ñetteelu fan ba. mu ni lii de. yéene naa koo jox. koo xamante ci jaamu yàlla lay nekk. ba mu demee day joxe ka muy joxe sarax ba. mu fekk. ki ëpp alal. ca dëkk ba. mu jox ko sarax. waa ji jaaxle. xëy suba. yow li ma am ci alal. diw di ma sarax. ca guddi ga. ca guddi ga sang bi sallallahu alayhi sang bi sallallahu alayhi wasallam. mu tëdd. nee mbokk mi tëdd. gént. gént ñu ni ko. ñu ni ko. sa sarax si nga doon def. muy ñett sarax yooyu. bu ci ne. nga di ko nëbb. ka nga jox. sarax ba. sarax ba te muy sàcc kat. alal ja ko jox. tax na. tax na ca la bàyyee sàcc ba léegi. keneen ka nga jox alal ja muy ndaw sax xalal alal ja nga ko jox ca la bàyyee mooy yàlla bu bis ni ki tey ni ko borom alal ji la nga ko jox ci bis boobu ci leen ni man kat comme que kii mooy dem ba di ma sarax lu ma amati naa ko bokk jaamu yàlla yi loolu mooy barkay joxe. loolu mooy yàlla nañu ko dolli sàmm. yàlla yàlla suñuy mbokk tamit ñi ngi fi. suñuy ak Cheikh. waaw ah, ak ah, Cheikh ñëwati nañu tam ñëw nañ. comme comme nañ daan ñëwee. comme nañ daan ñu gën a wàcc seen wàccuwaay. bàyyi seen liggéey yëpp. ñëw teew ci tabaarakalla moom daal euh, suñu du jeex daal. moom daal du jeex. te a ngi ci monsieur le préfet a ngi ci monsieur a ngi ci ñëpp war ñu ngi jéggal guddal ñu ngi jéggal guddal guddal bi. jéggalu guddal bi. sang bi saa sallam. daf ni su ngeen dee julli. ci biir mbooloo. na ngeen gàttal. na mu gën a gàtt. mu gën a gàtt. gën a baax te borom aajo nga fa. borom yittee nga fa. waaye nag su dee julli moom kenn. na guddal nu ko neexee. maa ngi jéggalu kon guddal bi. xaj ah, badara. loolu daal moo doon kaddu yi. sëriñ baa ngi lay nuyu. di fàttali kóllëre gi. di nuyu tamit doomam doomam xaritam soppeem. barki démb yónni na fi Moustapha mu ñëw teew si. ak xaj Bachir bi tam ñu koy di ko ziar. soxna ñi leen gërëm baax di leen sant. yal na leen yàlla fay leen yiw. yàlla bu ngeen dara lu ngeen télé. yàlla bu euh, seen télévision yi fi ñëw tamit. ñoom ñëpp ñu ne nuyu di leen sant. di leen ñëpp di dolli barkeel seen liggéey. yal na yàlla seen kat. seen mission. moo di fal yu ballig. mooy fal yu al shahid. minkum. al ghaiba. la yàlla na ko wax da ko yonent waxee woon sallallahu alayhi wa sallam. wadaa. mi ñi teew na nañu jotal ñu teewul yéen loolu mooy seen mission loolu daal moo doon kàddu yi sécurité bi tamit ñoom tam ñu leen di nuyu ak ah, organiser ñi organiser yëpp daal ñu leen di sant di leen gërëm tàggkat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom tamit ñi ngi noonu toog

na ba tey ci ay solom yëccëm moo ngi wax fa yàllaaw xad kaana njool makk sallallahu laakum manal ali kula salaatin salamalaaw ki teggin la lamboon to te foog te jàmbaar te lambu fula yàllaaw sayyiduna Muhammad dana torox li di jaar dalam te déglu ko jam di jar malaan ya di solin daax fa yàllaaw dirat gàttam yaa dag sardi yey fege bay di yey naagam di fekk baxlaam yey laaw di war ca baxlaam ya ak naagam ya daana dawal di war ca baab ya di ànd ak nit laaw sayyiduna muhammad isa mu sol mbaxanaam isa mu kaalaw bis isa mu jartu def boppam neen fa yàllaaw yaa saamu tëdd fi suuf yaa saamu tëdd ca kaw yaa saamu jekki xalam yàllaaw yàllaaw sayyiduna muhammad suy lekk day woote daawunu gis mu lekki biskam yaari sa kaayeteel wóor na yàllaaw suy lekk faw ni bismillahi dóora dugal alhamdulilahi lay noppee fa yàllaaw yi saa mu lekk di bokk ak Babacar wa Omar Ousmaanu suma Aliyun bir na yàllaaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Chérif Seybani Haydara ñi ngi lay jiital ngir sa maam sayduna muhammad sallallahu alayhi wa di ci teg sëriñ cheikh omar si ibnu cheikh alhaaji malik si abdul aziz seydi alhaaji malik njool faama di ci teg sëriñ mbàkke miy jóge tuuba di deretu mawlana xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa di nuyu sous-préfet bu nuyu sunu xarit sunu mag Sidel Samba Hawa Ka Sow Sidel Sow conseil économique et social conseil économique et social et environnemental nuyu Mawa Ndiaye maire Daara sunu xarit sunu cousin Mamar Ali Ndiaye sunu xarit Birame Ba maire de sunu mag Aboubacry Sow ak mboolem autorité yi nga xam ne ñoo fi teew yépp e, nuyu imam ratib bu muy nuyu kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci muy ak tund cassi bi yépp xam naa shérif e, kàddu yu gàtt la gàntaloon naa sax waaye e, ñu ñaan ma rek bu doon génn kàddu sax nañ ko wax ndax ñun lañ defoon ci carte yi def ñu ci banderole yi ne danañ ci waxtaan mafhumu salaam fil islaam maanaam l'islaam nan la déggee jàmm nan la gisee jàmm ci jamono junu mel waaye shérif li Cheikhu Omar wax tey ci jàmm doy na li nga nar a wax doy na li nit ñu baax ñi wax doy na waaye mën naa wax ne lislaam yépp diiney islaam ba mu jeex mooy jàmm amut leneen yonent yi fi jaaroon yépp yàlla yónni leen soo jàngee ci alxuraan dangay gis ne yàlla da leen santoon ñu véhiculer jàmm wax jàmm def jàmm waaye nag réussiruñu seen mission comme ni mu war a mate te yàlla nee na bëgg naa mbir yi mat ma yónni nag maamu Seybaani Haydara muy Muhammad ibnu Abdullah borom liwaawul xamdi mu ñëw mu nekk xaatumul anbiyaa wal mursalin bi mu ñëwee nag mu ne ko nag yow laa bëgg nga taaral mission yi fi jaar yépp jël diini ji mu ko jox ulwaanu haza diin huwa al islam diine ji amul benn carte d'identité wala benn adresse bu dul jàmm ak xibaar tabaarakallah yàlla la ñaari junni yomb amin fa tabaarakallahu ulwaanul islam assalaam adresse su diine ji ñu nekk du dara lu dul jàmm dégg nga yàlla sun borom subhaanahu wa taala turam yi nga xam ne bokk na ci tur yi gën a tedd muy assalaam maamu Cherif Seybaani Haydara moo ne yàlla kat moo moom tur bu ñuy wax assalaam foofu suuha na ngeen ko tàllal ci seen biir di ko jokkalante nga gis yonent bi ne alayhi salaatu lu waay bëgg ci yow su ñëwee te waxul kàddu jàmm bul ko wuyu man badaakum bilkalaami qabla salaam fala tujibuhu aw kama qaal nga gis julli ji nga xam ne tey mooy fondement diine soo xoolee julli ba mu jeex nga càmbar ko ndeke yàlla jàmm rek la bëgg entraîné ci doomu aadama bi la ca jaar ba nit ki di julli fa mu kàbbare téye boppam maanu di rukkoo di dalu ba fa muy jeexal yàlla ne ko def nga lépp waaye soo waxul baatu salaam sa julli gi day yàqu moo tax asalaamu aleykum ci biir julli farata la lu julli gi rafet rafet rafet boo bëggee jeexal il faut que da ngay wax salaam nga gis ci biir taaya ci biir taaya attahiyaatu lillahi da ngay dem ba mu yàgg ne asalaamu aleyna jàmm yàlla nekk ci ñun wa ala ibadillahi saalihin yaa ngi ñaan jàmm nga gis alquran di wax ne aljanna jën-jëm ëllëg nga xam ne ñun ñi ñëpp li ñuy def ak tantal rasulullahi dañoo bëgg bu ëllëgee yàlla teral ñu duggal ñu aljanna yàlla nee na aljanna jooju daaru salaam laa ko tuddee daaru salaam la tudd kërug jàmm nga gis alaxira langue officielle bi nga xam ne moom la nit ñi di làkk assalaam la paix la mooy jàmm jàmm la wax taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam laa yasma'uuna fiha laxwan wala taximan illa qiilan salaaman salaama kon suñu gisee rey rey gii bari ci àdduna bi xeex yi am xiiroo yi am ŋaayoo yi am xale yi ñuy rey xëccoo pëcc xoo tamante ndëmm mi ci réew mi kenn xamatul fan la nit di jaar ba mucc danañu jaaxle ndax nag jàmm mën waroon na mën a am ndax yàlla moo wax ne fekk naa àdduna bi lëndëm ma yónni sayduna muhammad fa taxaral kaw na mu del di nettuwaaye l'univers bi yépp teg alquran teg sunna teg leer ana lan moo tax kon àdduna bi di lëndëmaat jaaduwul ñun jullit yi nañu xoolaat suñu bopp et bëgguma guddal fi may jeexale dama doon nafar sama tiire tey doon xool tey lan laa war a wax ci muy téere paas bu mu ubbi gis fa loo xam ne nit mën na ca conférence waaye ma gis maami Chérif Seybani Haydara Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci bisu arafa mu dajale mbooloo mi yëpp mu ne dama bëgg ngeen déglu ma ay yowmin haasa alaysa yowmu arafa qaalu bala mu ne ban bis lañ nekk tey ndax duy bisu arafa mu ne aha kay bisu arafa la mu ne ayu baladin haasa réew mii ngeen nekk ak dëkk bi ban dëkk la alaysa baladul haram ndax du dëkk boo xam ne yàlla moo ko ormaal ñu nekk ko allahu wa rasulu alam mu ne ah kay yàllaa ko ormaal mu leen di laaj di leen laaj ayu shahrin haza weer wi ngeen nekk wan weer la ndax du weer woo xam ne yàllaa ko ormaal ñu ne ah mu leen di laaj ñuy tont mu ne inna dimaakum wa amwaalakum wa araadakum xaraamun aleykum ka xurmati yawmikum haza maa ngi leen di wax ne fii ba àdduna tukki message laa leen di jox message bi jullit bu ne na ko envoyé waat moroomam léegi mu mat juróom ñaari ñaari junniy at message bi nee nañu nañu dem waaye message bi doo ko dégg fu bari wala boo ko déggee duñ ko jëfe mu ne xam leen ne nit jël alalu jaambur di ko lekk ci lu daganut jaaduwut nañ ko bàyyi dereetu jullit jullit du génne dereetu jullit mbokkum jullitam ci lu du dëgg jërëjëf Njaay nit du topp ci deretu deru mbokkam di ko ŋawti ŋawtee di ca teg lu mu ci warta teg bokk yi nañu delluwaat jàngaat diine islaam dégluwaat yonte yàlla muhammad jéema nag yeewu ndax àdduna bi tukki na boo xoolee tey àdduna bi ñi ngi bombardé partout ñu naan Sénégal gii du fi agsi te li fi nekk moo fi raw ndax kenn ku ne góor yu nekk ci biiru tànt biiru tànt boo xam ne da leen a waroon a boole ñu bokk ndey bokk bàyyi mais tànt yi kenn ku ne yaa ngi xëcc sa kalan jëmay feneen parti politique yi ñu ànd dañuy gouverner waxuñu dëgg ci biir seen parti ñu ngi tamante ay nëmu daayira yi ñi ngi xëccoo dëkk yi mbootaay yi partout kon loolu du dëgg war na noo xoolaat seen bopp dem nañ ba jamono jii ñu gis ne léegi ñu ngi jël ay xale yu ndaw ay liir di leen fekk seen ndé néeg ndey yi di leen rendi naan ay sacrifice la ñuy def wallahi bu leen yàlla jàppee balaa at naa tukki fii la leen di yàlla njëkk a toroxal man qatala muminan mutaamidan fa jazaa'uhu jahannam képp ku jul ab jullit nga rey ko wala nga def nga bokk ca la yi yàlla nee na safara bu ñuy wax jahannam yàlla ci yàlla musul mooy safara bi gën a tàng gën a métti gën a ci safara yi falaa lay dugal wa gadiba allahu alayhi yàlla nee na ba pare dama lay mere te meram yàlla dafa garaaw wa laanahu llahu yàlla nee na dama lay rëbb bu ko rëbbee ba pare da koy mbugalaat mbugal moo xam ne mu taral kon mbokk yi dafa am benn américain ba ci démb benn sommet bu am Dubaï ñu daje di wax nan la ñuy waxee fexe ba sécurité ak jàmm mën a am ci adduna bi américain bi dal ni man yéen arab yi yéen jullit ñi man jaaxal ngeen ne ngeen benn yàlla ngeen am benn téere ngeen am benn xibla ngeen am te mënu leen a ànd waaw ah, madame Ndiaye jërëjëf mu ne ma dem Inde ak Siin gis na Siin ak Inde am nañ téeméeri yàlla ak juróom fukk am juróom-ñetti téeméer ci ay pas-pas te loolu lépp ànd ak seen kenn déggul seen xuloo kenn déggul seen pëccoxoo waaye nag jullit ñi ñoom seen bopp benn yàlla lañu am mais soo demee seen dëkk yi ñu ngi tuur seen deret yi ba moo peinture seen mbedd yi ba soxlootuñoo jënd léegi peinture mbedd moo jaar tey ci mbedd jullit ñi peinture nañ ko peinture bu xonq ci déretu jullit ñi kon américaine bi Michael mooy wax mu ne kon li ngeen wax ne benn buur ngeen am benn kaaba ngeen am benn téere ngeen am man gëwuma ko kon yéen jullit ñi xoolaat leen seen bopp eh, El Hadj Mbagnick ngeen baal ma nag yéen a ma santoon ma defal leen conférence waaye ni temps bi demee bañ a ëppal ak rek di ci li sëñ Cheikh Omar wax moo tax thème bi ngeen baal ma ba beneen yoon danaaw jël benn bis ñu dem buntu kër Badou fële ca Euh, zone B ñu jéem faa développé thème bi waaye nga baal ma rek ma sant doomi muy ndax man su ma ne mën naa ne dëkkuma ma muy njoosi laa dëkk sama ndey moo dëkk muy wax dëgg yàlla yéen saar ngeen jël ma jox ma cër boo xam ne man awuma ko fii ci muy kon nag mënumaa ñàkk sant seen mag ñu baax ñi nga xam ne loolu ci ñoom lañuy ñu jaar muy ëmm di jaañ ak sama maam ju ñaaw ji Omar Jéegaani Njaay ak ñiñ ko bokk ak daayiri bii nga xam ne tey lu jiit njàgg tey fu gàmmu gi àgg tey ñoo ko fi àggale mënuma leen ñàkk sant waaye ngeen baal ma Alioune Badara Njaay mii ma ñaanal ko yàlla yàlla ko yàlla jàppale amiin ah, soxna Seyna bu Sàll jërëjëf ma ñaanal ko yàlla ndax chaque jour dañuy xare ak moom léeg-léeg day yëkkati dara ñu ne ko nijaay loolu ëpp na wala loolu du noonu mu ne eh bàyyi leen ma tantu rasulullah lu ma ci bëgg def jaral na ma ko te lu ma ci def gën naa ne rasulullah dina la ma ko delloo waaye nag ku gis nii tànt bi taaroo nii tant bi jekke ak li muy jëflanteeg nit ñu baax ñi lu way ñàkk mën a wax wax danga ne badu bëgg na muy badu bëgg na ay bokkam kon nag loolu yàlla ko ko yàlla jàppale yéen daayira bi ngeen góorgóorlu wax naa ko wax naa ko Amady Diagne ne li ngeen di def ëpp naa xeet yàlla leen yàlla jàppale yéen ji ak yéen Socé Gueye ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa taxawaay fii ci muy eh, Sidel Samba Xaaw ñi ngi sant ministre de l'intérieur ndax atam bi ñu demee ci moom ne ko dañoo bëgg yoonu muy bërki démb la rek maa ngi koy fàttaliku dafa jël téléphone am woo directeur général bu Ageroute ne ko sama dëkk moo soxla dama bëgg nga bàyyi lu bari nga yóbbulal ma muy yoon wi yoon wi maa ngi nii dugg na ñu dem ma ànd ak sama nijaay bandu mi ak bokk yi ma ko ànd ak ne dañu ko dañoo bëgg courant mu yëkkatiwaat téléphone am boobu Anchou moo nekk AGER mu ne ko sama dëkk dafa soxla courant te su doon sama sago ñu fexe ba courant bi dugg mu wax ne ay groupe lañ fa war a yóbbu aali ne ko bëgguma groupe ci biir muy moo tax dëkk yi ñuy wër am na ñoo xam ne ay groupe ak yeneen central lañ leen defar mais muy optation moo fi dugg loolu nag ku la defar lu mel ci lu baax ak teraanga nga ñëw di di jaar ci yoon bi amuloo benn problème boo ko suntun ñaanaloo ko yàlla ñu am luñ la jiiñ Cheikh Saourou Faye yal na yàlla guddal sa fan ñëw naa tey ci bëccëg pour sant la gërëm la ànd ak mbooloo mu bari ci lii ngay def ci muy ndax yow doomu muy nga doomu jolof nga waaye ab sénégalais nga boo xam ne patriote nga surtout Cheikh Ahmadou Bamba nga ku baax nga li ngay def ci muy gis nañ koy yàlla yàlla fay aqulu qawli hadha ngi lay sant di la gërëm nii nga koy defee saa su ne suñu xewlee ci muy ñi ngi lay ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan wéral say cër te ñu yàgg di def lii nga ko yàgg di fekte di ñu bégal euh, asalaamualeykum wa rahmatullah yéen mbokk yi maa ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell di ci jiital sunu ma nuyoo ki nga xam ne bi yéen nag mooy njiitu réew mi te yàlla jël réew mi teg ko ci ay loxoom muy le président Macky Sall teg ci le premier ministre Boun Abdallah Dionne ak képp koo xam ne ki yéen euh, jëwriñ nga te nekk ci gouvernement bi loolu lépp nag ñu ngi koy jël teg ko ci loxoy ki nga xam ne bii ñun mooy suñu ministre muy le ministre de l'intérieur di le ministre Aly Ngouille Ndiaye ñëwul waaye euh, mel ni na teew na ndaxte yónnee na fi délégation bu bu takku ñu teew teewlu ñi ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla euh, ba fi nga xamee bi yéen moom la bëgg a jëme réew mi moom moomu moo le président Macky sàll yàlla dimbale leen ba ñu yeggale liggéey bi ñi ngi ñaan nag ñi nga xam ne bi yéen ñoo fi nekk euh, nekk ay jolof-jolof euh, jàppale le ministre Aly Ngouille ndaxte kat ko gis li mu def waxuma muy rekk yemul muy waaye gox bi yépp li mu def fii def na ko fa Euh, mën nañ wax ne démb ku xam muy ak ñi fi daan ñëw bu ñuy gàmmu euh, ñëwoon fii jafe-jafe la léegi fexe nañ ba yoon wi yegsi na fii ak daara ñaar fukki simili ngay def pour yegsi muy waxuñu loolu am na luñ ko ñaanoon mooy électricité l'électrification rurale euh, léegi mën nañ wax ne euh, yegg na fépp muy nag mën nañ wax ne moo ci ëppale parce que moom électricité la am ñeneen ñi am nañu groupe waaye mën nañ wax ne aussi am nañ éclairage am nañ lépp ñu ko ci gërëm di ko ci sant di ko ci ñaanal yàlla euh, xam nañ ne li mu def du yem fii parce que man wax na ma ko ne ma baddu li ma def fii ci muy euh, maa ngi ñaan yàlla def ko ci dëkk yi nga xam ni bien moo mu ñu wër ak gox-goxaan yi nga xam ni bien ah amaguñu yoon bu baax amaguñu électricité donc moom nit la koo xam ne kii nañ ko jàppale parce que lépp loo xam ne leen dana ko wax wax na ko rek da koy def nit ku dëggu la nit ku baax la yéen xam naa ne yéen ma ko gën a xam ndaxte lim fi ñëw bari na te gox yu bari mi ngi fay dem di fa def teraanga lu mu wax nit rek dana ko def kon kooku yàlla na ko yàlla jàppale ñu ni tamit ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñu jéem koo jàppale euh, loolu daal moom laa leen di ñaan ci wàllu googu di gërëm euh, suma mag ñu baax yi nga xam ne bii nit ñoom it démb ñoom ñoo yoroon daayira bi duma leen lim ndaxte ki nga xam ne booy sama jarbaat nekk oustaz Omar Seck tudd na leen léegi duñu def lu may ñaanal leen ndaxte daayira bi ak gàmmu gi bu yegsee fii ñoom la ñun ñoo ñu teg ñoom ñoo ñu teg si yoon te ba léegi seen wax jogut ci ñun seen it poos jogut ci ñun li ko firndeel sunu mag mi ngi fii euh, docteur Yéemu Dieng daaw ñëwoon na ren ñëw na bër ki démb rek mu ngi ma mi ngi ñëw suma bureau ñuy waxtaan mu ne ma daal Badara li rafet na waaye bëgg naa buñ ci jógee ñu am leneen loo xam ne li yéen mën nañ koo def pour muy ma ne ko ànd ci yéen daal lu ngeen ñu digal ñu def bu ñu ko mënul aussi danañ ko wuti te euh, ñi ngi sant daal ñu ngi koy sant daal di sant sunu mag Maawa Njaay muy le maire de Daara moom i tamit ku ne xam na fii la bokk di sant Mor euh, Ali Gallo mi nga xam ne bii moom i tamit fii la bokk di sant daal mbokk yëpp ñi nga xam ne bii yéen ñoom ñoo fi ñëw tey te ànd ak ñoom délégation yi bari na yaakaar naa ne lim lañ leen léegi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla euh, di sant yi waa dëkk bi ndaxte weer wi yaakaar naa ne euh, ayu bés bu ne ñëw naa fi muy guddi di bëccëg bu ma ñëwee toog nañ waxtaan te gis naa ne lépp loo xam ne liyeen waxoon nañ ko gis naa ko def ngeen ko yàlla na yàlla yàgg yàggal ànd bi te muy nekk ànd bu dëggu bu ñu ko defee yaakaar naa ne lépp loo xam ne liyeen yootu nañ ci dañ ci jot maa ngi sant kilifa diine yi fi teew yëpp sama jarbaat wax na ko aussi di sant sunu sëriñ Cheikh Omar Sy mi fi jóge léegi di doomu Maodo mi nga xam ni bii mooy suñu wasila euh, fu ma nekk fu ne dana ma fa fekk wax na ko léegi yàgg nay ñëw suma kër di ma seet si bu ma ñëwee ñaanal ma ñaanal njaboot gi dem kon moom nit ku baax la yàlla na ko yàlla fay wéral ay cëre moom i tamit te def ko mag parce que xale la waaye mën nañoo wax ne mag la parce que yëfu mag lay def te di ko doxee ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla di ñaanal ñi nga xam ne bien aussi ñooy jigéen ñi fi teew li euh, ñuy wax rek ne lu jigéen bokkul neexul yéenay njëkk ci tànt yi yéen a gën a farlu kon yéen mënuñu amuñu seen fay ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla taxawu yàlla na leen yàlla fay euh, yàlla na leen yàlla aar aar seen njaboot ñu ngi gërëm daal daanaka ñëpp <coughs> ñi nga xam ne bi teew nañ fi euh, presse bi ñu ngi leen di gërëm euh, amuñu seen pay at mu jot mu ne yéen ak ñun ñooy ànd ci ci ci ci ci ci jàng yi ba bët set ñu ngi leen di gërëm ñu ngi gërëm RTS ñu ngi fi teew di gërëm 2S TV mi ngi fi teew di gërëm euh, euh, TFM mi ngi fi teew di gërëm waa Xelcom bâche yi nga xam ne bii aussi at mu jot mu ne ñu indil bâche ñu indil ñu baas boo xam ne benn moo dàq bi nga xam ne benn moom la fi yoonoon donc ñooñu aussi am ñu seen fay ku gis bâche bi xam ne taaru na lool te li ko waral aussi mooy ñi nga xam ni bii mooy xale yi ma àndal muy comité d'organisation bi ñaa ngi leen di gërëm di leen sant dinaa seen taxawaay ci sama wat bu mel ni yéen la maa ngi leen di sant di leen gërëm euh, balaa may jeexal nag dafa am ay doléance yoo xam ne yéen waa dëkk bi dañ ma ko waxoon maa ngi koy yóbbante euh, maa ngi koy yóbbante euh, ci délégation ministérielle bi fi nekk muy case de santé boo xam ne benn jigéen ñi daal ak waa dëkk bi nee nañ woon bu fekkante ne bien euh, dem nañ ba ci euh, cérémonie bi ah ñu wax leen ko ngeen yëgale ko ministre bi bu ci mënee def dara mu def ko ci euh, dëkk bi nga xam ne bien aussi mooy Mbayeen am na lu luñ ma waxoon ne ma dañoo bëgg daal bu bés ba nga waxal ñu délégation ministre bi wala ministre bi wala délégation bi ne leen ran ran bi nga xam ne bi yegsi na ba Mbayeen bu ñu sañoon mu jaar muy continuer Kamb je pense que l'année euh, daaw euh, monsieur le maire de Kamb waxoon na ci te loolu projet la peut dana nekk waxoon nañ fa aussi affaire courant parce que man euh, weer yële ca gannaaw ñëwoon naa fi def ci def tournée ci casde gi yëpp am na dëkk yu bari yoo xam ni demoon naa fa ba ma fa demee daal seen tawat moo doon loolu yoon électricité ak case de santé wala euh, poste de santé wax nañu dëgg léegi euh, yàpp sa jëng mi njëkk a intervenir wax na ko ne daal bu ñu sañoon danañ am post de santé boo xam ne bi danañ ci mën a faju parce que faju mi dafa métti parce que jóge fii takk charrette walla nga luwe oto dem ba kàmb di faju ji dafa métti loolu daal bu ñu ci taxawuloon ah dana gën a baax dana gën a yombalal nit ñi ak faju maa ngi gërëm aussi sama xar yi nga xam ne bi yéen dañ fee teew te at mu jot mu ne ñu ñëw am na ñoo xam ne ñu ñëwuñu dañoo am ndog ñii dañoo am ay dëj ñu ngi ñaanal ñi nga xam ne bi yéen euh, jiitu nañ ñu ñooñu yàlla na leen yàlla aar yàlla na leen yàlla xaari àjjana xarit yi nga xam ne bi yéen ñëw nañ mën naa cee lim ñoom Pape ak Cheikh at mu jot mu ne dañuy bàyyi lépp ñëw ànd ak man ñeen doog man ci bés bi ñu awma seen pay taal seen oto ñëw fii vraiment ànd ak ñun ci ànd ak mbooloo mi ci cérémonie bi nekk ak man ba guddi ñu ñibbi donc ñooñu awma seen pay maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla ñoom tamit li nga xam ne bien ci la ñu nekk yàlla defal leen ci ndam daanaka daal jarbaat yëf yi yegg na maa ngi gërëm ñëpp di sën sant ñëpp di ñaanal ñi nga xam ne bi ñëw nañ fii ñu dellu ci jàmm fekk fa jàmm ñi fi indi feebar yàlla na ko yàlla teg ci ñoom ñi fi indi yeneen aussi yàlla na ko yàlla tegg ci ñoom maa ngi gërëm di sant ñëpp di leen jox daje at mii di ñëw yàlla nañu ci yàlla yóbbu mën na ko te dina ko def incha allah jërëjëf. mbokki Jolof mbokki département de Linguère mbokki Sénégal mbokki commune bu Kam. population bu muy maa ngi leen di nuyu ku nekk ci yéen turam ak santam maa ngi jiital ci nuyoo bi waa ahlul beyt yi nga xam ne ñëw nañu fi tey Chérif yi ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm yaa sa délégation bi nga ànd ak euh, di rafetlu bu baax sa teewaay bi fii ci muy euh, di nuyu Cheikh Omar Sy bi nga xam ne jóge na fi léegi bàyyeekoo tiwaawan moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko jox wàccuwaay di nuyu également ki nga xam ne moo fi toogal famille Serigne Touba muy Cheikh Sawru fay euh, ñi ngi lay nuyu di la sant euh, di nuyu imaamu dëkk bi di nuyu bépp sëriñ boo xam ne ñëw nga fi tey di la ziyaare di la jox sa wàccuwaay di nuyu également oustaz Oumar Seck ci kàddu yi nga xam ne yëkkati ni ko fi léegi oustaz nuyu nañ la ci wàllu kilifa aada maa ngi nuyu chef de village ki nga xam ne moo wax léegi ci tuuru chef de village muy suma najaa yàpp sa jeng maa ngi lay nuyu di jël suma nuyoo teg ko ci sa loxo nga jot li ma bépp chef de village bu fi ñëw di nuyu également suma collègue maire yi nga xam ne jóge nañ ci yeneen commune ñëw fii di commencé rek di nuyu suma mag le maire de Boulal Aboubacry Sow ñëw na fi ànd ak une forte délégation monsieur le maire ñu ngi lay bismillah fii ci muy euh, def naa ne commune bi nga jiite muy bulal ak commune bu Kamb benn lañ rawatina nag population bi nekk muy fii ak bu bulal di nuyu également koo xam ne suma mag la fu ñu daje ci ndaje yu mel nii daf naan ma man yaay suma maire muy maire Maawo maire Daara Jolof donc monsieur le maire euh, gis nañ sa taxawaay ci muy donc ñu ngi la ci sant di la gërëm di nuyu également koo xam ne sunu mag la moom it mu bëgg muy am fu mu teg muy te def naa ne at yi passé yëpp day ñëw ci gàmm gi moo it nga xam ne vraiment taxawaayam ci département bi nekk na taxawaay bu am solo muy suma mag Mor Ali Ndiaye Mor Ali ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm euh, di nuyu koo xam ne également euh, fu mu toll mi ngi jàppale le ministre Aly Ngouille Ndiaye di jàppale aussi le président de la République son excellence Macky Sall di def aussi liggéey bu am solo ci biir département de Linguère nekk aussi conseil économique social environnemental en même temps coordinateur départemental APR per Sidel ñi ngi lay nuyu di rafetlu aussi sa teewaay euh, di la yóbbante ci ministre bi euh, di ko gërëm di ko sant ci taxawaayam euh, def naa ne wax nañ ko fi léegi am na lu ci bëri fekke naa ko daf naa ne muy li gënoon nekk jafe-jafe mooy accès bi daf naa problème yoon nekkoon na fi lu lu rëy problème courant aussi nekkoon na fi jafe-jafe euh, def naa en 2016 la fi ministre bi jël engagement que su ñibbee incha allah dana ci taxaw def naa loolu tey antu na yoon bi pare na courant bi aussi takk na peut ñu xoolaat yeneen projet yoo xam ne dëkk bi war na ko am ñu jéem ci taxaw Euh, di nuyu koo xam ne aussi moo fi toogal administration territoriale muy la sous-préfet de Yaya Youssoufa Gueye moom it ñëw na ànd ak une forte délégation préfet ñoo ngi lay nuyu euh, di la sant di rafetlu sa teewaay ci gàmmu muy bi euh, su loolu paasee damay sant bu baax suma mag Aliou Badara ci taxawaayam muy ak bépp doomi muy parce def naa ne tey yàlla def na ne ci biir commune bu Kam euh, gàmmu muy bokk na ci événement religieux yi gën a mag donc loolu en tant que autorité locale dama koy rafetlu su ma sañoon lu mel nii day am ci dëkk yépp parce que gis naa ne lii euh, avancement la gis naa ne aussi luy mën a indi développement la ci gox donc Aliou Badara yaag ressortissant muy yépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bi ngeen taxaw pour que muy jëm kanam euh, muy nag nekkul dëkk bu ñuy fàtte wax ngeen ko fi léegi dëkku cosaan la euh, en tout cas jël nañ note par rapport ak doléance yi ngeen fi wax euh, def naa ne muy romb na case de santé bu yàgg ce qui fait daaw woon nañu fi Louga ci gouvernance su contrôle di gouverneur def naa c'était par rapport à la rationalisation de la carte sanitaire euh, def naa am na case yu bëri yu ñu demande woon pour ñu ériger ko en poste de santé parce que muy dafa am gannaaw donc muy yelloo na ak poste de santé maintenant li des mooy que peut-être ñu suivre demande boobu pour que vraiment ñu mën a am fii poste euh, leneen li également euh, wax ngeen ko courant bi des na Euh, surtout haute tension bi daf naa ne mi ngi soog a ñëw fii à part Kamb amutoon beneen dëkk bu am haute tension comme que ñëw na muy demandé nañ également pour que mu jàll Mbayeen Thiasde mu jàll aussi yeneen dëkk yu mel na Leeñ ak Kebbe def naa Mbayeen Thiasde aussi li tardeel courant bi bon xamaguñ ko ba léegi parce que ñoom it euh, PUDC ñëwoon na fa def ay études mais ba léegi euh, ñëwaataguñ mais loolu lépp dafa laaj suivi en tout cas. ci wàllu planification bi ñu def dëkk yooyu yëpp dugal nañ leen ci wàllu jumtukaay wala ay machines yoo xam ne dañ ko jagleel jigéen ñi def naa muy aussi am na équipement yu am solo yu ñu war a jot euh, du yàgg def naa PUDC woo nañ ma fan yi que machine yooyu war nañ ñëw par rapport ak piste bi nag euh, piste bi également euh, am na benn programme bu ñuy wax PPC PNDL ñooñu aussi def naa ñëw nañ fi ñaari yoon di def étude piste bi jóge Boulal ñëw ba Mbayeen Thiasde euh, commune bu Mbuula ak commune bu Kamb euh, porté nañ projet boo xam ne dañ bëgg piste bi continuer ba Mbay Awo te def naa su jógee Mbayeen muy lay jaar continuer ba ci pont bi mun a jàll Mbay Awo def naa loolu aussi woon nañ ñu fi ñaari yoon Louga euh, ñi ngi ci parce que piste yi aussi ñoo ñuy permettre ñu désenclaver zone bi donc par rapport ak doléance yi loolu laa amoon lu ma ciy wax. mais comme que per Sidel mi ngi fi te moom la ministre bi yónni pour euh, mu ñëw fi tey dama ciy profité également di la wax Père Sidel soo demee nga ne ministre bi également am na dëkk yu mag yu fi nekk yu am jafe-jafe ndox soo jëlee leeñ ak kebbe fi nga xam ne foofu la Serigne moor Binta yi nekk am nañ jafe-jafe ndox donc loolu aussi bëgg nañ ñu jàppale ñi si Euh, comme ça ñoom it vraiment problème boobu mën a saafara donc leneen lii euh, bëgguma guddal mu ngi bëgg guddi xanaa soo demee rek nga gërëmal ñu bu baax ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye di rafetlu liggéey bi muy def di wax sëriñ si aussi ñu ñaanal ko ñaanal aussi son excellence président Macky ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def. ñu ñaanal ko aussi ci élection yi ñu jëm mu mën a toogaat. pour mën a àggale vraiment programme yi ak projet yi nga xam ne sumb na ko donc loolu ñi ngi koy dénk sëriñ si ñu def ci ñaan ngeen ñaan aussi jàmm am ci Sénégal euh, jàmm lañ soxla dal am ci réew mi donc ku ne xam na ne temps yi coow li bëri na eh, ngeen bàyyi ci xel donc euh, loolu laa amoon lu may wax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kon nag Chérif yow ak ñi nga àndaan sérif yeeg taalib yeeg ñëpp ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziara ñu ngi lay teg ci sa palaas ci suñuy kàddu euh, su loolu paasee euh, jataay bi balaa ma dugg ci li nga xam ni moo ma fi indi walla yi ma fi indi jataay bi a ci am lu may seetlu nit ñi nee nañu nañu ñaan waaye man li ma fi gis ñaan gu yàlla nangu ba pare ndax man nekkatuma xale te muy gii teel naa fi ñëw lool jafe-jafe yi fi amoon xam naa ci yu bari gis naa ci yu bari fekk naa ci yu bari waaye gis naa ne tey xéewal li fi yàlla def li ñaan bu yàlla nangu la ba pare ñu ñëw fi tey fekk fi ñoo xam ne ay shérif lañ ñu fekk fi ay ñu sant si fekk fi ñu sant mbakke tase fi ak ku mel ni Umar Seck ak ku mel ne doomi alhaji Mamadou Lamine mi fi joge léegi muy maam Sëriñ ñii de wax dëgg yàlla fu ñuy daje yaakaar tabbi na fa hmm. kon nag yàlla na yàlla yokk loolu la ñuy wax waaye ku xamoon fii ba nga gis lii nga xam ne ñaan gu yàlla nangul kon nag ñoo ngi ci sant yàlla et su loolu passé ñëw naa fii tey ci turu ki nga xam ne muy la ministre l'intérieur su préfet nga baal ma ndax su ñu tuddee ministre de l'intérieur dafa mel ni yaa ko fi war a toogal yaa fi war a toogal nguur yi gouvernement bi waaye aalimu yi dafa nekk suñu responsable dafa nekk koo xam ni ki Jolof moom la président Macky Sall tànn tànnal ko Sénégal waaye tànnal ko Jolof jël kóolitam yëpp yaakaaram jox ko aalimu yi waaye xam naa ne juumul ndax ñun ñun de fii ci departement Linguère lii Aly Ngouille di def te boolewu ci wax même ñu baaxul ñu ngi koy gis waxuma la sax ñi baax ba yàlla def kàddu gi nekk benn Aly Ngouille mu ngi jàppale président Macky Sall xam naa ne du jolof rek waaye mu ngi koy jàppale ci jolof mu ngi jàppale jolof jolof yi mu ngi jàppale dëkk yi maire Linguère la waaye xam naa ne li muy def ci département Linguère yaakaar naa sax defu ko defu ko sax Linguère ci yeneen ci yeneen communes yi kon nag mooma fi waxoon naat fi naa ko fi ñëwal su ma ñëwee naat toog ci jataay bi nga xam place bi nga xam ne moom la fi waroon toog moom la daan toog fi ànd nañ fi aussi fii ci muy mu ne ma gërëmal ko santal ko comité d'organisation bi nee na mu ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm Badara Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye mu ngi lay sant yow ak ñi nga xam ne yéen a organisé gàmm bi ak sëriñ si ak sérif yi ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale diggante góor ak jigéen mu ngi leen di nuyu di leen gërëm su waxee ne su dul woon xas-xas àddina mu ñëw fi tey war nañ ko gëm ndax ñëwoon na fi gàmm kon nag dafa am ay xat-xat yoo xam ne ñu ñëpp xam nañ réew mi fu mu toll eh, te moom la ñu sécurité réew mi bon tey mu ngi fu nekk mu wóoluñu yebal ñu bi may ñëw nag yàlla def ma ànd xam naa ne sax lim nañ délégation bi mun na am dootuma ci jaar waaye ala kulli haalin mu fi ñëwee fekk fi nga xam ni mooy meeru Kamba te fi bokk ci commune Kamba muy Biram Ba danaa ko nuyu danaa ko gërëm li ma waroon wax ak li keneen waroon wax yépp Biram wax nga te yaa ko wax nag mu nekk maire bokk ci haut conseil collectivité territoriale membre ci la kon nag munoo ma ñëw fii jël kàddu du ma la gërëm du la sant te xam naa ne gis naa ni la nit ñi fu ñu lay xoole ak ni la jàpp bi ñu ñëw ànd nañu ak ñu xarit léegi-léegi mu ne ma suma mag léegi-léegi ñu ne ay morom muy Momar Ndiaye Maawo muy maire de Daara maa ngi lay nuyu di la gërëm suñu jerbaat muy Abou Bakri Sow bi ma ko gisee fi ma nekk ah lii de wax dëgg yàlla jaadu na soo nekkee maire Boulal tam de ku ñëw fii ci muy te mu xam dara xàmmee yaakaar naan war na la fi gis ndax kër Demba Sandi gi soriwul fii te ci nga bokk nga ànd ak délégation bu rëy jóge Boulal ñëw fi ah ki nga xam ni moom mooy moor ali nag moom mooy suñu njaatige fii tey ci muy ndax xam nañu relation am ak muy ci pappam ak ci mbokkam yépp fii ci muy xam nañu Momar Aali Njaay yow yaay kan fii ci muy kon nag bu ñu ñëwee nga nekk suñu njaatige ñoo ngi lay gërëm ñu ngi lay nuyu di la sant monsieur la sous-préfet maa ngi lay gërëm maa ngi lay nuyu ci turu ki nga xam ni moom moo ma fi yónni ki nga xam ni moo ma fi jox kàddu mooy le ministre Aly Ngouille boo demee sous préfet sous préfet bi Moussa Sy ak ñi nga xam ne ñoom ngeen àndal ci sous préfecture bi yépp gërëm nañ leen sant nañ leen seetlu nañ wax dëgg yàlla seen taxawaay ci arrondissement bi seen personnel yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm euh, kon nag gannaaw nuyoo yi ak gërëmaat yi nga xam ne mënta ñàkk sëriñ si sëriñ ñun de liñ leen di wax mooy wax dëgg yàlla wolof nee na eh, gis weddi gis bokku ci ndax département Linguère gi waxuma muy de xam ngeen président Macky Sall bi mu fi ñëwee mu ngi dugg département Linguère le 16 janvier 2010 Kamba mooy deuxième dikk bu mu dal bu mu jógee Boulal rek Kamba la liñ ko wax ci département bi yépp Macky Sall bu la yàlla joxee nguur gi ndox lañ soxla yoon lañ soxla courant lañ soxla tey tey fi ñuy toog nii département Linguère am nañ 62 forages 2012 ak léegi juróom benn fukki forage ak ñaar su doon meeting walla lu yaatu ma lim yëpp xam naa ngeen seetlu tey jógeel muy rek bëgg dem daara am na ku ne léegi ñaar fukki minute la waaye jógeel daara jëm Touba jógeel daara dem Matam jógeel Linguère jëm Dolli jógeel Linguère jëm Labgar jaar dooji dem Labgar Koura wax ngeen ko léegi fii la ñu toog tey li ngeen ci gis moo am ci département bi yëpp kon nag li leen di wax mooy ñaanal tey président Macky Sall ci département Linguère mooy ñaanal sa bopp su fekkee ci département Linguère nga bokk kon nañ ko ñaanal yàlla may ko li mu sumb mu mu motali ko yàlla may ko deuxième mandat am ci lu yomb coow li li mu bari bari bari wax dëgg yàlla kenn comme kenn mënul taxaw fi mu lim lii ñu ci lim lépp mu ne moo ko def wala sàmm moo ko def wala demba moo ko def xam ngeen ne coow li dafay bari rek waaye ko ku deful dara doo am dara président Macky Sall li mu fi def gis nañ ko nañ ko jàppale Aly Ngouille Ndiaye li mu fi def gis nañ ko nañ ko jàppale kon nag mboolem ñi nga xam ne àndoon na ak ñoom ci mel ni ñoom Samba Lawbe Ndiaye ñoom Yibba dem Demban ñoom si Chérif Yara Sow ñoom ñëpp e, ñu ngi fi e, yàlla def fi nga xam ne dem nañu ba àgg ci fi ñuy jëlee kàddu suñu ñeenti député yi ñu am ci département bi kenn ki mu nga tey gàmmu war ko keneen kaa ngi ñeneen ñu ngi ci département bi di liggéey muy Ndeye Fatou Guissé nii bi député ñu ngi lay la ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñu ngi lay xamal ñu ngi xamal ñëpp tam fépp lu mel ni fu mu xew gis nañ fa Ndeye Fatou Guissé loolu nag dañ ko ko war a gërëme war ko ko sant di ko wax mu jëlal ñu suñu nuyoo nuyu ñu notable yi fi nekk yëpp di nuyu le maire de la commune de Kamb mu nuyu ñu collègue yi fi teew yépp jikko nuyu Chérif mu nuyu ñu kilifa diina yi fi nekk yépp suñu waa kër maam Cheikh Ahmadou Bamba suñu waa kër maam Seydi Hadji ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ku lim juum di wax rek tey ni état moo fi nekk le sous-préfet est là l'assemblée est là conseil yaa ngi fi directeur de société ngi fi ak lépp PCA ITA yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu mënuma limu ñëpp ñi ma jiitu lim nañu ñëpp donc di rafetlu jataay bi di ñaan yàlla lépp lu luñ fi tooge na doon yiw di nuyu nag le président du comité d'organisation li tax ma koy nuyu rek dama bëgg a joxe un exemple un citoyen bu nga xamante ni euh, ku nekk war na ko tiitaroo parce si on parle de PCE le plan Sénégal émergent ku nekk su doon def ni si dëkkam liggéey bi daf nu yomb ñun parce que bala ngay soqali commune soqali sa arrondissement soqali sa département soqalil fa nga dëkk d'abord PSE e, si muy émergent la commune de Kamb le département la région su ko defee lépp day yomb sa kaw dañuy faral di wax ni da ngay laaj looy defal sa dëkk ba pare ngay laaj lu ma sama réew di defal donc moom dañ koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam ndaxte gis nañu taxawaayam si ni mu taxawee si développement gox bi gannaaw loolu ñëw sax pour indi ay réponse parce que lii euh, si del wax lu ñu jonn kenn du ko kenn du ko nit ñaan yàlla rek ngeen ñaanal président de la république ñaanal ñu mu seq liggéey bi ba yàlla mottali li mu bëgg a def ci askan wi waaw électrification kenn waxatu ko xëy na des na piste rurale aussi ñëw na di leen wax ni li indi loolu mooy indi leneen wax nañ fi case de santé mais je pense que muy mérite plus qu'une case de santé et que commune de Cambou plus de quatre-vingt et quelques villages benn poste de santé la am bon nag c'est une noble su leen waxee case de santé en plus de case de santé man dama ñu poste de santé te lool yaakaar naa ne suñ si doxee tànku jéegu ak ñi ko séqal incha yàlla dana ko indi li mu indee ñeneen di wax aussi sa affaire santé ba tey di ngeen fàtte ni CMU CMU def di programme ba nga xamante ne chef de l'État moo ko fi indi woon def si cotiser nit ñi ñëpp cinquante pour cent ba pare parce que 7000 francs la mu joxe cent francs par personne boobu ba tey donc di fàttali nag nit ñi suñu cotisé wul dañuy perte lool parce que président cotisé na ñëpp seen genn wàll la muy couverture maladie universelle donc loolu mutuelle yi ñoo ngi si commune yi euh, ngeen dem cotiser pour que ngeen mën a bénéficier wu si loolu chef de l'État jox pour yéen askan wi beneen bi mooy di fàttali rek affaire inscription sur les listes électorales moi je dis même pas inscription sur les listes parce que suñu ne inscription sur les listes électorales dañuy foog ni carte boobu voté ko tax a jug mais en plus de du vote mën na la neen donc ñëw leen bindu bindu bi commencé depuis le premier mars su neex yàlla le 23 avril la war a jeex en général nit ñi dañuy xaar ba une semaine ñu ñëw mais dañu leen di ñaan ngeen ñëw yéen a tax ñu indi fi commission yi am na commission spéciale bu nekk dans l'arrondissement de Orkadiéré commune bu nekk aussi am na commission bu fa nekk donc ñëw leen ngeen bindu te ku ñëw bindool ku jotagul sa carte bindu woon ba pare ñëwal seet sa carte ba xam ndax sa carte nga fa parce que élection yi ñuy yi ñu jëm yëpp soo amul carte doo ci mën a bokk donc dañ leen di ñaan ngeen ñëw bindu waaw donc man sama wax duma ko guddal li may wax rek mooy ngeen dolli ñaan parce que fi ñuy tibbe li mu daan wax fi ñuy tibbe benn kes la te soxla yi dafa bare parce que li ñu war muy moo ñu war mbayeen kees de war ñu faneen war ñu faneen donc yéen kilifa diine yi nitu yàlla yi fi yàlla teg ñaan leen réew mi yàlla def fi jàmm ku ne dégg na jamono yi tàng lu réew mi ni mu tàng wax am nañ ko fi wax ay ay ay ren di xale yooyu dañuy ñaan yàlla yàlla defal ñu si jàmm wàcce jàmm si réew mi wàcce jàmm si réew jullit yëpp wàcce jàmm jàmm si àddina bi yëpp ngeen defal ñu ñaan parce que ñaan lañu yaakaar te su ngeen ñaanee yàlla mën na def jàmm am si réew mi alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada salaamun tam wa taxiyat alkiram salaam al asma tadillahu wal ard taqillahu ila saadatikum jamian كبارا وصغارا ذكورا وإناثا سلام الله مني إليكم أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw ba ñu sante yàlla jullit seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen nuyu yéen ñépp ku nekk ci ci ci turam ak santam jiiteel ci waa kër Seydina Mouhamed Chérif Cheikh Adrame mi ngi toog nii ci kaw Chérif Cheikh Manatullah mi ngi nii toog moom it ak délégation bu ma àndal ak daayira bi ñoom ñëpp waa kër Seydina Mouhamed ñoom ñoo bëgg dëkk bi ñoom ñoo sopp dëkk bi sopp jàng yi mu leen ñu bay seen te yëpp ñëw ànd ak man maa ngi leen di gërëm ci loolu ndax yonent bi moo wax qaddimu quraysan wala tuaxiruhum seen subhanahu wa taala moo leen wax yàlla moo leen wax ci alquran innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijsa ahlul beyti wa yutahirakum tathira yàlla ci boppam bu waxee ne jaam nangu ndax lii waxu yàlla la yàlla moo ne yéen waa kër Seydina Muhammad maa leen wax innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijsa ahlul beyt wa yutahirakum tathira gis ngeen taxirakum mooy setal ci àdduna tatxira mooy àllaxira damay faral fu ma toog ma wax doomi aadama mooy fóot mu tilimaat waaye yàlla du fóot mbir ba mu tilimaat ñoom nag dañu leen di jiital lu ñu nekk sumay rakk yépp setu yonent lañu te bàyyi seen yitte ànd ak man teg ci ñi nga xam ne ñooy sëriñ yi nga xam ne doomi soxna yi nga xam xamee ñëw nañu ci bés bii di ñu jàppale ci suñu bés bii ndax man man ci laa bokk ndax jëmm ji toog ak xale bi nga xam ne ne sama taalibe la mu ngi fii ci dëkk bii ñu ngi ko wax maa jigéen maa jigéen jàng man ci dëkk bii laa bokk ndax xale bi moo njëkk a jëbbalu ci man ci xale yi fii moo tax nag fu ma toog dinaa ko gërëm dinaa ko sant li nga xam ne nag ñoom ñooy kilifa yi nga xamee ñoo fi ñëwoon ñu ngi ci nuyu eh, Serigne Cheikh Oumar Sy ñu fi jógee léegi doomi sëñ Maodo yal na yàlla yokk leeram yàlla guddal fanam yàlla yokk xam-xamam yàlla may na ko xam-xam ak moom ak délégation ñi mu àndal ñëpp di ci teg ki nga xam ne kii moom la waa kër Serigne Touba moom moo leen dikkal fii. di ci teg ki nga xam ne kii mooy maam Malick jax nga xam ne moom mu fi nekkoon xam na mi ngi fi walla dem na moom Serigne Dia ñoom ñoo fi nekkoon doomi soxna yi ma ci jiital nag ñi nga xam ne tamit ñoom yàlla moo leen boole ci programme am damay faral di wax yàlla bu waxee rekk nangul yàlla li nga xam ne mooy gouvernement yàlla ci boppam moo leen dugal ci biir alquran moom it moo wax yaa ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum ulil amri boobu nag mooy ñoom yàlla dafa bëgg beni aadama moo tax mu ne nañu topp nguur ndax nguur ku ko woon doole boo moytuwoon mu toroxal waaye yàlla bëggul ku toroxal doomi aadama moo tax yàlla ne nañ leen topp eh, ki nga xam ne kii mooy ki nga xam ne ki moom moo ci mag tey di suñu mag di maire daara moom mooy Mahawa Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la xamal ne délégation bi yow yaay seen mag ñoom ñëpp di suñu mag ñun ñii tamit ndax yàlla moo ko def suñu waajur suñu waajur yi ak sa waajur la woon ba léegi yow it yaa ngi koy jàpp di ci teg ki nga xam ne ki moom mooy suma rak di suma doomi ndey ndax suñu ñaari maam rek ñoo bokk ndey ak baay xëy na loolu xamuleen ko di mooy meer kambu di biram ba mi toog suñu ñaari maam rek ñoo bokk ndey ak baay suma rakk la di ci teg ki nga xam ne ki suma xarit la depuis ñaar fukki at man ak moom ren di moor moor Ali Njaay mi toog suma xarit la vingt ans man ak moom tey moo tax moor Ali yaa xam li nga bëgg yal na la ko yàlla defal eh, di ci teg ki nga xam ne ki ñoom ñoo ki nga xam ne ki mooy ministre bi moo ko yónnee di suma xarit nag benn bakkan di siidal soow ñi ngi ñaan yàlla yal na yàlla yàggal taxawaayam taxawaayam ci appartement de Linguère bi rusloowu ko de yal na ko yàlla jàppale eh, di ci teg ki nga xam ne kii moom mooy préfet bi ñi ngi lay nuyu di la wàcce sa wàccuwaay ndax euh, loo gis nag dafa am bunt yow yaa fi nekkal tey président de la république yal na yàlla yàggal sa taxawaay dégg nañu sa wax sa wax rafet na macha allah yéen ñëpp wax autorités yi seen wax yi déglu nañu ko bu baax te dégloowuñu ko nopp nag xol lañu ko dégloo te xam naa ne képp ku nekk ci yéen waxam bu ko bindul tamit macha allah jaar na yoon yal na yàggal seen taxawaay léegi nag. ñu jublu nag ci dëkk bi kan mooy bunt bi ki nga xam ne moom la yàlla teg fii tey di imam malik mii imam malik kan yow yaay bunt bi kuy dugg ci néeg dangay jaar ci bunt ñu ngi lay wàcce sa wàccuwaay xamal ne le nuyu dëkk bi ñu ngi ko teg ci sa loxo nuyu waale mbooleem dëkk bi yépp di ci teg ki nga xam ne suma xarit la man maay moom moom mooy man yàlla dogal na ren sa programme dafa ma fekk ma am cas urgent Paris yàlla sedd na ko moo tax gisuloo ma woo nga ma nga wax ma programme bi nga war a def bulal yépp waaye dama am benn cas urgent Paris ma dem te xam naa wax nañ la ko loolu moo tax ma affaire bi mi ngi ma fekk France maa ngi loolu moo ma ci tardel di alxaaji Omar Seck mii damay wax ne am ku doom bu mel ne alxaaji Omar Seck mu am xam-xam tiitaroo la ci suñu ñun ñëpp waa Jolof waxuma Njoosi waxuma muy waxuma feneen mais Jolof yëpp suñu tiitar la bu fekkee nag suñu xol yi rafet na ndax xam-xam yombul yàlla moom moo koy maye lu solal doomi aadama yi mooy xam-xam ak alal ak daraja moom bu fekkee suñu doom yàlla may ko xam-xam mu taxaw taxawaay bu rafet bu mel nii ci diine bi fu mu taxaw ci àdduna bi man ak moom dañuy tase ci yeneen gox yi ñu wax ne kii doomi Jolof rek doy nañu ci ndam alxaaji Omar Seck yal na yàlla guddal fanam waaw li oh, olof nag yéen a wax lu yëngu lu nekk lu ko yëngal moo ko ëpp doole lu yëngu lu nekk ko yëngal moo ko ëpp kan moo yëngal mbir mi nag mooy El Hadj Alioune Badara yow damay faral di wax fu ma toog ma wax ko dëkk bu ba naree am chance day am biddéew dëkk bu amul biddéew mu fay waaye nañu moytu yéen yàlla musal ci biddéew yàlla fenk ko ci bërëb ñu koy xeex pour mu fay bu fayee rek dëkk bi fay biddéew bu amee bu feeñee ci dëkk ni ñu ñaan yàlla mu yokk waaye bu mu fay ni ñu ñaan yàlla beneen biddéew fenk beneen fenk fële beneen fenk fii bu yàggee rek dëkk bi gën yaatu gina rëy ndax moom mii li mu def man ñee naa ko lu mu nekk suma xarit nekk suma doomi de yëpp ñeen naa ko ci li mu def lii ndax lii ku nekk bu doon sa sago nga def ko ci sa dëkk nañu wax dëgg nit mun na yor alalam defi ko feneen nit mun na yor alalam tiitaroo ko feneen waaye ñëw ba ci àll bi te taxawal tant Seydina Muhammad bu mel nii nu tant bi rafetee nu mu taaree yal na yàlla taarale nu sa àdduna ak sa àllaaxira te wallaahi yàlla dina ko def lu tax ma waat ko ne yàlla ci boppam moom moo wax ci alquran waalamu annama ganimtum min cheyin fa inna lillahi xumsa wa lirrasuli wa lidil qurba walyatame walmasakini wa bni sabil yàlla moo wax ne bu ma leen joxee dara man yàlla te moom kese mooy joxe nag kenn mënu fi maye ku dul yàlla mooy maye xam-xam moom maye alal moo maye teraanga moom maye président moo maye ministre mooy nommé directeur mooy nommé maire mooy nommé lépp kooku nag moo ne juróom yi bu ma leen maye suma alal man yàlla na ngeen ko ci def mooy lan wa inna lillahi xamsa juróom la wax wali rasuli lu mu njëkk a wax mooy wàllu seydina muhammad wali dal korbe say mbokk yaa ngi koy def wali yataamee jirim yi wal kiin miskin yàlla yi wabni sabil fondation diine te juróom yi yépp wallahi yaa ngi koy def ci sa alal ndax ñun waa kër Seydina Muhammad kenn ci ñu day toog ba yàgg rek mu woo la Chérif ndax jot nga message bi boo xoolee boo demee fax pour nga am fu nga ko problème lay doon ndax wari yu bari du ñu am xaalis loolu nag yàlla gis na ko yàlla na yàlla guddal sa fan day toog ba mu ñëw daaru salaam mu yëkkati alal bu dul jeex jox ma ba suma kër ba ci ma biir saal nit nag bu la defalee danga koy wax gis ngeen suul jëf musiba la te yéen a wax nag yéen a olof yéen a wax suul kër du ko tere feeñ gis ngeen ku bëgg a noppalu da ànd ak li yàlla def seen doom ji mayul boppam li mu am de tant bii bu doon du moom du fi ñëw tant bii at bu nekk day gën a rafet day gën a taaru xam ngeen kan laa yërëm tey ku dugg ci tànt bi sa bon billahi yërëm naa ko ndax boo moytuwul danga nga ñibbi nga feebar nga deekaat jàkk rey la billahi waaw waaye képp koo xam ne ki dugg nga ci tànt bi da nga am li sëñ bi doon wax albin selim boo ñibbee yàlla dina la yokk boo ko ñaanalee yàlla dina ko yokk boo ko ñaanalul yàlla dina ko yokk Alioune Badara yal na yàlla guddal sa fan man lii laa bëgg ci gor gor dangay am jom am fit nga jëf ku jëf ku mënul def lu rëy yow ku ku tuuti nga waaye ku yàlla may tamit nga mun ko def santal yàlla yàlla moo la may jëf ji ngay def yàlla moo la ko may du kenn nag ku dul yàlla mi la bind ak sa ñaanu waajur ma wax la loolu moo tax nag yal yàlla guddal sa fan man dama bëgg ku jéem te yàlla mu ñu bind moo gin a bëgg ku jéem Seydina Muhammad lu mu wax mu ne tarku sibbati su ul edeb ma allah bàyyi sabab lu ñàkk respect yàlla la ñu ne ko lu tax yaa rasulullah yàlla dafa lay bëgg a jox du am fu mu ko jaarale waaye boo sababloo yàlla jël indi lépp teg ci sa loxo waaye boo jéemul def dara yàlla def ni moom it seetaan la Alioune Badara lu bari lu fi ñëw te yàlla ak yow la gis nga suma jigéen bii toog suma wet léegi la ñëw de waaye xam naa ne bu doon sagam fekk kenn jiitu ko fii ndax xam naa yitteem kii nga xam ne mooy di gise mii toog yàlla nomme ko ndey mangaan gise mii yàlla nomme ko mu nekk tey député du moom de yàlla moom moo ko soob yàlla moo wax ci alquran innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun lu ma leen wax fii dinaa ci teg ay yàlla moom ci boppam yàlla moom moo ko nommé ci mbaaxam man ak moom nag Alioune Badara na nga xam ne du tey yàgg na boobu nekkul député de gàmmu Daaru Salaam ndogoon boobu nekkagul député kenn du ko jiitu suma kër te moo fay mujj mi ngi nii gàmmu ren bi ñu ngi ko nommé député mi ngi waroon a dem yeneen xew waaye mu ne leen man lu ma ciy dindi rek mooy ñu teral ma ci bàmmeel kër ga la yendu foofu la fanaan nekk ak man ci tànt bi ba fajar mu ñibbi yal na yàlla guddal sa fan yooyu moo tax nag gis ngeen jëf li yëpp lu ko waral mooy jéem gis ngeen doomi aadama dangay ngay jéem yàlla fekk si la waaye ku jéemul dara rek yàlla seetaan la te kenn moo fi maye gëm leen ne yéen ñi ñëpp ku nekk ci yéen yàlla teral na lan mooy teral doomi aadama yàlla bind la jox la diinal islaam loolu rek day na ci teraanga yàlla bind la ba pare mu def la jullit te ñu fi nekk ñëpp ay jullit lañu muy góor muy jigéen moo tax nag yàlla teral na leen wala kat karam naa bani aadama bi yàlla in bu bi yàlla wax ci alquran teral naa doomi aadama waaye ñan ñan ñoo fa jiitu mooy ñi gëm li yàlla wax inna diina inda allahi islaam mooy ñi nekk ci biir ñoo ñu la yàlla waxal te ñoom la jiital te wax naa leen lenn fu ma toog mu wax ko ne gis ngeen jullit jullit bépp jullit bu dem bu daar ci siraat siraat jullit xakkan du jaar ci siraat mbir mi dafa war a leer bu ngeen déggee siraat métti na xar yi fii dañuy rend tabaski di ci war ni dafa fekk doo jullit xakkan jullit nag ngeen baaxal ma ak jeetaay yu mel ni yombul dañuy yokkante xel gis ngeen jullit yi jaar siraat mooy jullit ku iñaan jullit bu bon xol jullit ku soxor jullit bu nay ñi ñooy jaar siraat mais jullit xakkaan yi nga xam ne ne ñi ngi def lu leen yàlla wax du jaar ci siraat ndax yàlla ci boppam du waxantu gis ngeen bu ngeen ñëwee gëm diinal islaam ba pare ngeen jël tariqa yi ngeen gëm ko ngeen téye ko waaye nag man diw mooy suma sëriñ du ma julli duma ma suma sëriñ du ma woor diw mooy suma sëriñ duma ma màggal nit ku baax bu koor gi jegee léegi feebar yi bari yàlla nañ ci yàlla musal moo tax nag góor góorgóorlu leen ci seen diine ngeen xam ne jullit xakkan xam ngeen fan ngeen di jaar bunt bu Seydina Muhammad di jaar bu taxawee ci bunt bi dañu koy ubbi ñu ne ko kii Seydina Muhammad la bunt bii moom kese moo fay jaar ak kan ummati ummati ummati lay wax yowmal qiyaamati ummati boobu bu leen yaakaar ne ñun ñi nga xam ne deretam lañu rek déedéet képp kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci nga bokk da ngay ji da ngay taxaw yonent bi sujud yàlla yónni ci moom tey du bési sujud mu ne ko tey nag laay sujud man seydina muhammad ummati ummati ñoom ñépp nañu taxaw suma kanam mu soog a yëkkati suma jëf bi man rasulillah jullit yépp taxaw ci kanamam mu soog a yëkkati jëxam aljanna du jullit yi de ñooñu ñooy njabootu yeneen yonent yi la ñoom la Seydina Muhammad génn tibb ci ñoom ñetti tibb duggal aljanna waaye du njabootam moom njaboot Seydina Muhammad bu ko gëm kenn du la jiitu ci aljanna loolu see boo ngeen xam ko aljanna yàlla moo ko moom te yàlla moo ne moom yàlla ci boppam moo ne aljanna bi li ma ko dayee mooy ñu baax ñi ak ñi ma gëm yàlla waaye nit mënul gëm yàlla nag te nga soxor ndax yàlla samp fii Alioune Badara mi nga taxaw fële nga ne du fi amee yërëm naa la kat xeexaloo ak Alioune Badara de xam nga kan ngay xeexal yàlla ndax kii mayul boppam dara fu ma toog ma wax leen ko ku juddoo indaalewul dal nan ngay mun a may sa bopp dara kan moo lay may lu waahidul ahad mu may la nag mu taal leeram ci dëkk mu taal ko ci bërëb nga ne da koy fay xam nga nu mu mel <laughs> yàlla wax na ak ñooñu ci alquran de mu ne leen alladina yutfiuuna nuur allahi bi afwahihim wa yaaba allahu illa an yutimma nuurihi walaw kariha alkaafiruun ñooñu nga xam ne ñu ngi jéemal fay su ma xam nga suñu borom dafa xam doomi aadama bu mu ñu bindee ba pare dafa ñu xam xam nga musiba fan la nekk ci ñun suñu làmmiñ moo tax mu ne na lalina yutfi'uuna nuura llaahi bi afwaahihim ñooy jéem a fay sama leer man yàlla ci seeni i gémmiñ la ya wax la wax wa yaaba llaahu mu ne ma lànk man yàlla ay an mel nuur yi lu dul ma mbatal sama leer bi wala moom bu yéeféer yi bañ walaw kariha al-kaafiruun loolu nag xam ngeen jéem a fay li yàlla samp lu mu mel exemple ma may leen ko nga jël essence sotti ko ci safara day gën a takk loolu mooy wax lu bon ci ki yàlla samp te gis ngeen coow lii bari ngeen waxal ma ngeen baxal ma domaine boobu dinaa ci dugg coow lii bari na xam nga lan moo indi coow li ñàkk gëm yàlla ñàkk gëm yàlla kese moom moo ñu ko indil bu ñu gëmee yàlla ñu xam ne coow li du bari lu tax birki biig àllarba ci guddi Alioune Badara wallahi àllarba ci guddi minuit maa ngi wax ak ministre Aly Ngouille Ndiaye ci affaire gàmmu bi wallaahi yàlla moo ma tax a wax alarba bii ci guddi ma ne ko man kat dama bëri ay programme ma ne ko maa ngi war a dem aljuma ba Saalum fu ñuy wax wax na foofu laa nekk démb ba heure bii laa fa départ ñëw Daaru Salaam waaye ma ne ko mënuma tar di gàmmu muy mu ne moom moom moo ma wax mu ne ma ministre moo ma wax Chérif li ma gën a metti mooy li may tardé bés boobu tey mu ne ma samedi bii bëggoon naa mu fekk ma fa ndax ma ne mu ne ma gàmmu bi toujours daf may fekk ci xat-xat wallahi al azim àllarba bii ci guddi mu ne amul lu ko gën a metti li mu tardé bés bii tey ma wax la ko nag ma seddal la ko àllarba bii ci guddi ñun ñoo doon wax ci téléphone ma ak moom mu wax ma lii moo tax nag bu ngeen ko gisul te ngeen gis délégation am ngeen gis gouvernement bi yëpp ngeen gis maire yi yëpp ngeen xam ne ne ñëw na kenn ci yéen rek mun na présenter ministre waaye nañu ko ñaanal yàlla rek fu mu buggee egg yàlla na ko yàlla fa eggal ndax kuy def lu baax kat dañ ko war a ñaanal kuy def lu bon nañu ko ñaanal ndax yàlla wëlbati ko li nga xam ne nag coow li lu ko indi mooy ñett wërsëg daraja wërsëg daraja ak fëgg dënn man la man la waaye cëy ki nga xam ne kii du jaawale coow li bari na de waaye yàlla moo gin a xam ku gën ci jaamam yi moom lay jël jël jaamam yi ñu def mu def ko ci seen biir xol ñu woteel ko mu gàññee mu toog yàlla mooy nome kenn du nome ku yàlla nome nag ñu jàpp ci yàlla ñu xam ne ne kii yàlla moom moo ko nome du ñun yàlla moo ko wax ci alquran mu ne allahumma malikal mulk tuutil mulka man tasha wa tanziul mulka mimman tasha wa tuizzu man tasha wa tudillu man tasha bi yadika alxayru innaka ala kulli shay'in qadir mu ne moom mooy fol yàlla mu ne moom mooy fal li moo tax nag ni ñu gëm yàlla wàññi coow li ñu xam ne li yàlla programme programme ne ko te dara xewagul bu ñu gëmee yàlla ñu gëm li yàlla def rekk ñu ànd ak programme yàlla yàlla bëgg ñu waaye wallaahi jullit bu bon xol gis nga sëñ bi li mu doon wax sànq ci xol danaa leen ko wax yàlla ci moo wax ci alquran in ya'lamillahu fi qulubikum xayran fal yu'tikum xayran yàlla moo ne bu ma xamee ne seen xol bi lu baax moo ci nekk ma jox leen lu baax wallahi ku fi tardé sa xol moo la tardé ku fi tardé xoolaatal sa bopp xam ngeen nax yàlla bokkul nga jóg nga jàpp nga jublu penku ngay jëlli ngay julli ay raka nga ne dangay naafilal yàlla te yàlla xam ne ne sa xol sa xor mi ngi ci dangay dee rek sigg ak siggi waaye doo am tiyaabu daraja doo ko am jël kurus bi kurus junni ngay wirti tur yàlla nga koy xëcc pour yàlla indil la xéewal may la xéewal yàlla xam ne ne sa xol bii leneen moo ci nekk iñaan mi ngi ci wala naafeq mi ngi ci wallahi sa kurus dina dagg te doo am grand bu bu bu bees boo leneen li mooy kuy toog na nga sellal sa fii sellal leen seen xol yi gis ngeen wax naa leen ko fii cardiaque ku mu rey rek da nga iñaan ku iñaanul doo am cardiaque mu ku iñaanul doo am cardiaque ndax doo sonal sa xol xol bi mi nga war a yëngatu cent soixante fois par jour léegi ci exemple mi ngi def nii day dox ndànk di def nii def nii def nii bu fekkee iñaan ñëw na nag nii lay def day gaaw bu gaawee nag néew doole ñëw bu néew doole ñëwee feebar ñëw bu feebar ñëwee nag cardiaque ñu ne dee na say say yal nañ ci yàlla musal moo tax nag nañu delloo suñu xel ci yàlla ñu xam ne moom rek moo fi nekk ñu wal ñi coow li dëkk bi réew bi bari na coow lu ñuy wax dañuy rey fii ay xale ma ne rey nit bu doon day joxe dara kon ñu bari danañ am waaye ku yaakaar na rey nii dina la may dara perte nga man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam yàlla nañ ci yàlla musal ñaareel bi naafiq bu nekkee ci sa xol nga xam ne ne bokkatuloo yàlla moo ne innal munaafiqiina fi darakil asfali minan naar daraja bu gën a kowe foofu la naafiq a nekk moo tax xoot foot leen xol ngeen ànd te yàlla tax ngeen jàppante ngeen ànd bu ngeen jubbanti xale yi xale yi yéen a ngi taxaw yéen lay waxal ngeen baxal ma foofu laay tëjee man toujours ci xale yi laay tëjee na ngeen xam ne man Chérif Cheybani ak beneen sëriñ ak ku munta doon lu mu leen wax lu dul won leen yàlla ak Seydina Muhammad ak seeni waajur waxu leen dëgg xale bu fi xeeb papaam wala nga xeeb sa yaay billaahi da nga am jafe-jafe àdduna ba nga dee xale bu fi teral say waajur sëriñ boo taseel mu ñaanal la yàlla nangu ko bu leen benn sëriñ nax bu leen benn tareeka nax tareeka yi lu ñu doon rang-rang bi ku ko jàddul nga dem daara waaye boo ko jàddee nag sëriñ bi mu ci yow dara yàlla la lay jox turu yàlla salaatu ala nabi nga téye ko nga góorlu ci waaye nag lépp nag yàlla amul lu mu boole boppam lu dul waajur moo tax nag góorgóorlu leen ci seen waajur ngeen baal ma ak Euh, toggaay bi métti na lu nekk lu ma leen indaale la ëpp na lii ndax euh, dëkk bi jaral na ma ko euh, alxaaji Alioune Badara Ndiaye jaral na ma ko ndax coono yi yëpp bu ngeen gisee fu mu nekk nii wax sax mënuma ko ndax démb bu quatre heures laa commencé ba sept moo tax coono bi métti waaye jaral ngeen ma déplacement alxaaji Omar Seck ñu ngi lay nuyuwaat di la xamal ne yal na yàlla yàggal sa taxawaay ci kanamu njaboot bi waaw ñun dañu lay tiitaroo ndax damay faral di wax gox ñaar bu amul ci gox ba ñett gox googu yërëm naa ko boroom xam-xam boroom alal boroom nguur boroom ndomb tànk boroom domb tànk ak boroom alal ak boroom xam-xam ñett yi bu nekkul ci bërëb bërëb boobu jar na yërëm day gën a soox waaye du jëm kanam yàlla nañ ci yàlla musal moo tax fu ñu am doom bu am xam-xam wala bu am alal nañu ko ñaanal yàlla yàlla yokk ko ñu xam ne ni suñu chance la yéen chance jolof ngeen ndax ñun ñoo war a gën a sonn ndax nag bu mettee bu metti suñu maam la yàlla jël yóbbu ko ci moom mu jox ko diine bi mu wàcce ko bu doon du moom benn sëriñ du fi sujud benn sëriñ du fi nekk wàliyu benn sëriñ duñ la fi tudd ku ñu fi tudd suñu maam moo tax ñun bu ñu amee ay sëriñ nag ak ay borom xam-xam di ñu jàppale ci diine bi di wax nit ñi di waaraate kooku suñuy chance la ñun ndax lépp ñun la la ko yàlla teg moo tax euh, sëñ bi bu fekkee ne pare ngeen ñu def ñaan sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin